àndaat ak yéen jàkkaarloo bi jàkkaarloo bi ñu ci euh, dalal professeur euh, Youssou Ndaw bu ngeen ko déggee moom professeur en pharmacie la euh, droit et déontologie ak yeneen jaar-jaar yoo xam ni am na ko ci wàllu vaccin buñ ci yegsee di ngeen di ngeen xam li tax ñu invité ko macha allah kàngam la ci ñu feggoog Abdourahmane Sow tamit di yëngu ci wàllu waa kër euh, docteur euh, bokk ci Revocap bokk yi ci COS m donc casquette yi nga xam ni toogee na ko fi euh, bëri na Cheikh Yérim Seck tamit mu ngi ànd ak ñun ci waxtaan wi laata ñu ci gën a xuus ak chroniqueur habituel yi dañuy daal di yëkki ay kàddu ñaan jëmale ci jaari Sow doomu Sénégal la France Paris la dem euh, jàngi ji waaye jamono ji ñeenti fan ci weeru janvier ba nëgër nii dañ ko gisul ba tax euh, ñu ngi xalaat ay mbokkam moom si boppam it euh, di ñaan yàlla nit ko ba ñu gisaat ko Pape Djibril Fall yan xibaar ci yu mujj ndax bi mu fi jaaree soir d'info laaj ak tontu dox na seen diggante. Mm. te it gëstu nga jamono ji mbir moomu nga xam ni xewee na France concerné doomu Sénégal boobu mm. fan lañ ci toll. di la nuyu di nuyu <clears throat> ñi ñuy seetaan yëpp ak kilifa yi ñu bokkal plateau bi di wax ne déjà dañ koy naqarlu euh, di ñaan tamit euh, que mu nekk une affaire d'état que état français ñu mën ko sensibiliser ba li ci war yëpp mu def ko effectivement mbir mu tiis la ndax ci kii mu dal moo tax ku mu mënoon di dal rek day tiis waaye kii mu dal nag dafa nekk xale bu yaakaaru boo xamante ni euh, dafa tegle Sénégal di jël maire élève ba dem tey ji nekk ci école préparatoire pour les grandes écoles donc kooku réew mi da koo yaakaar lool yónni woon ko yàkkamti ko comme on dit donc di massawu yaayam bu baax a baax a baax ak mbokkam yépp waaye nag di rafetlu liggéey bu am solo bi nga xamante ni euh, ki nga xamante ni moom mooy pareem def na ko ci muy Serigne Mbaye Thiam l' ancien ministre de l' nga xam depuis bi fi papaay xale bi jógee moom moo ci am taxawaay bu am solo donc démb ba tey euh, may jokkoo ak moom jokkoo avec euh, koo xamante ni ku ko jege la muy jóg ñoo ma doon informé en temps réel ba léegi nii woo naa leen ñu ñuy wax euh, fi nga xamante ni foofu la mbir mi toll effectivement euh, wax nañ ne lëndi la mujjee budget euh, ci immeuble boobu la ñu mujjee xam lan moo xew ci moom. Mhm. donc ginnaaw bi nag ci la ko école bi muy jàngee ñoo ko signalé wax ne dellu siwul bi nga xamante ni bésu dellu si bi jotoon na bi ñuy jógee ci feet yi Euh, information bi ñu doon wax tamit doon wax ne xale bi nga xamante ni moom la nekkal muy xaritam moom it dafa demandoon en même temps ak moom loolu tamit wérut waaw ndax xale bi ñoom euh, Serigne bay Thiam ak yaayam jokkoon nañu ak moom euh, donc information bi daal mooy service de renseignement français yi ñoo ngi ciy def ay jéego mhm. loolu la ñu wax pour mu feeñ waaye ñoo ngi ñaan ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi mhm. ndax comme tweet jamonoy tweet la ñu nekk te tweet dafa am solo na def tweet euh, ñu ñu nga xamante ni mobilisation bi dina gën a bëri ñëpp jàpp ci ñëpp ñaan ci ku am sa allahuma rek def ko ci euh, xeebuñu benn ñaan ngir ñu mën ko retrouver encore une fois di massawu yaayam baax di ñaan suñu borom mu may ko xolum muñ te yàlla dimbale ñu ba ñu retrouver ko seen et sauve. Mm-hmm. Cheikh Yérim yu mel nii bu xewee bu xewee lan lañ ci mën a xalaat. waaw dëkk bu mel ni France réer fa warul warul yomb. daanaka réer lu mënul nekk la mm. yàlla ñaan yàlla buñ koy retrouver mu mm-hmm. nekk ci jàmm mm-hmm. li ma gëm moom mooy bu fekkee ni mi ngi France rek moom nañ ko retrouver moom mm-hmm. incha allahu rabbi li ci des nag mooy euh, France aussi dëkk bu mag la bu am service secret yu am solo yoo xam ni euh, xam naa peut-être xam nañ ci lu ñu waxul parce que bon service secret français yàlla def na gaaw nañ efficace nañ euh, Euh, li ci xaw a encourageant rek mooy ñooñu dafa budget lundi. Mhm. ba budget ça veut dire que yaa génne sa bopp. Mhm. loolu am na solo loolu je pense que indice la boo xam ne am na solo. li ci des nag mooy xam nga rek euh, ñu gën a gëstu gën koo topp jàpp naa ne daal réew mu mel ni France moom am nañ technologie ah. ak mhm. euh, xereñteef goo xam ne ni bu fekkee ne amoon na portable wala mu. am yenn objet électronique yu muy àndal wala ordinateur wala lu mënti doon. jàpp naa ne fu mën a nekk ci France dinañ ko. loolu bu leen tëwee sax. ci seet bi mbedd yi am na ay caméra mbedd yi am ay caméra. voilà dañuy topp am na caméra ba pare dëkk bi. mën na jël temps mais dinañ topp ba xam. foo ba pare dëkk bi am na GPS yoo xam ne nii. Euh, daanaka fépp ci seen réew ñoom mën nañ koo saytu mën nañ koo leeral mën nañ koo lëxmboot mën nañ koo gis. Hmm. lu jarañaan daal mooy yàlla na yàlla def buñ koy gis. fekk mu nekk ci jàmm. amiin amiin euh, nekk ci sago hmm. mais jëmmi ñu gisaat ko moom man awma ci dut incha mm, allah incha allah buuba waaw comme li yi wax rek di mm-hmm. di ñaan rek ñu gis ko parce que c'est vrai que suñu njaboot la ñun ñëpp donc euh, yal nañu yàlla dimbale ba ñu gis ko ci jàmm amiin salaam parce que li mu doon symboliser bëri na man rencontré naa ko fii mm-hmm. am naa yaakaar ni yàlla dina ci def jàmm nañ ñaan incha papis bismillah waaw lii maa ngi nuyu di wax si li yi wax rek ah je fu mu nekk nii on est mm-hmm. amul dara si mën loo rek mooy ñaan et xëy na si war a mën def dara ñu jóg si xëy na def seen kem kàttan pour euh, situation bi ñu wat maanaam ñu gis ko tey di ñaan aussi gis ko si anam yoo xamante ni anam yu yu dal xel yu baax. professeur jàng jàngee nga jànge nga France certainement ci jaar-jaar lu mel ni bu bu amee lu ci lu saxel ci lu muy dem. salaamaaleykum wa rahmatulah professeur Youssou Ndaw mhm. maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal ci dalal bi ngeen ma dalal tey ci émission bu am solo bi. Euh, di wax rek li fi ñëpp wax parce que France ku xam France xam ne dëkk bu organisé la mhm. donc euh, lu mel nii bu fa amee dinañu xaw a jaax xanaa suñu kilifa yi ñoom ñu jéem a xool nu ñu jokkoo kilifa yi France. Mhm. waaw gaaw taxaw ci mbir mi. te ñaan comme ni mu waxee ñu ñaan rek yàlla retrouver ko dans de bonnes conditions aussi. Mhm. waaw loolu daal yal na ko yàlla nit. Mhm. Abdou Abdourahmane Sow. waaw mu tàmbali ñu ma doon tàmbali wax bisimilahi rahmaani rahim. wasalaatu wasalaam ala shafi sayyidina Muhammad wa sallam. di leen gërëm ci invitation bi di ñaan waxtaanu jàmm ak salaam. mënu fi wax lu gaa yi waxul li ci ëpp solo daal li ma yaakaar mooy ñuy ñaan yàlla suñu borom def mu feeñaat mm-hmm. te buy feeñ mu nekk ci jàmm dara bañ koo bañ koo dal mm-hmm. ci kàttanu yàlla suñu borom waaw loolu ñu koy ñaan malal jaar yàlla na feeñ ak jàmm yàlla nit ko comme niñ ko waxee kon dénk nañ ko yàlla comme euh, ni papis waxee rek ñun ñaan ak euh, sàkku ci autorité yi ñu taxaw ci taxawaay bi war moom la ñu mën beneen doomu Sénégal boo xam ni soxla na taxawu docteur la ndaw la te ndaw yi sax la bëggoon di faj Pierre da Silva ñu dem ci kon euh, SOD Sadio Ousmane Diédhiou docteur la waaye yàlla dafa dogal ni euh, dafa dafa wopp wopp goo xam ni ay koppar yu takku moo ko moo koy faj nit ñaa ngi yëngu nag dajale ngir jàpp si waaye ñuy sàkku 280 millions bu dee ci man bëri na Pape Djibril bu dee ci yow bëri na mais bu dee ci nguur bëriwul hmm. lu ci nguur gi mën a def taxaw ci ba nga xam ni ndaw moomu euh, am ñu amoon yaakaar ci moom mu jàng ba waroon a fël jëriñ réewam feebar bu raar dab dab ko ñu taxaw ba ba ba faj ko Abdourahmane boo ci amee looy wax xam nga yàlla moom lu baax rek lay def ba muy hmm. waaye ñëw comme que dañuy yëgoo ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéey ak loolu am mhm. ku ci yóbbante woon mhm. di wax kaawu euh, Ousmane Diéguy bi mhm. donc bu ñëwee fii ngeen souligner débat bi moi je pense que c' est très important ci tribune bi ñu profité ci parce que mi ngi commencé yàgg surtout nag euh, dafa dajeeg mu am beneen moromu ndaw bu ñu wax jaari mu am ay tolof tolof yi ko dal léegi ñi doon intervenir dañu gis ni que ñi euh, ko pa waxee sànq xëy na dafa tombé ñii am nañ parrain ñeneen ñi du am parrain parce que tamit Ousmane yàgg na euh, feebaram bi docteur la fajkat la day jàng euh, ñu am yaakaar ci moom ne bu jàngee ba mokkal dinañ amal njëriñ askan wi euh, gars yi wut nañ ba am ay cinquante huit millions je pense que ni mm-hmm. état du moromu ay citoyens mm-hmm. war nañ ci mën a taxaw c'est vraiment sensible lépp lu ñu ci mën a def rek pour dimbali ko parce que doomu Sénégal la comme autant d'autres Sénégalais aussi mm-hmm. ñu bañ a juum ne que ñii lañ ko war a defal ñu ko defal ña si des mais day tombe am ñu am chance am opportunité bii mm-hmm. nga wax dëgg yàlla ku jara dimbali la yokk ci li nga xam ne am na ay doomi Sénégal yoo xam ne jub nañu def ci ay jéego mm-hmm. yal na yàlla mottali lépp ba nga xamante ni dina sotti incha allah ko fondation yaa ngi fi waaye it ni ma wax njiitu réew mi am na capacité ak mm-hmm. pouvoir d'intervention boo xam ni loolu du du dara ci moom yërim waaw man de gëm naa ni euh, président boo ko yëgee dina ko dina ko dina ko faj parce que xam naa fibre sociale am Euh, médecin boobu kaam dama gis ni dafa préoccupé trop trop étudiants yi ak le mhm. monde médical mhm. boo xoolee place bi ñu bi mu am ci réseaux sociaux yi place bi ko gars yi jox ak campagne battage bi ñuy def moo tax ma incha allah bu fekkee ni borom réew mi ngi ñuy seetaan moom mhm. gisee dina ko faj naa ci yaakaar incha allah waaw ku ci bëggoon wax dara ale euh, ñu dénk moom tamit euh, Ousmane moomu dénk nañ ko président de la République kon ñu ñu ñu def ci dara comme sa yàlla moom it may ko taw féex fëgg bopp bi mu delluwaat mu delluwaat ci geste euh, ci fajukaay ba contexte solidarité euh, yu mel nii mm-hmm. man dama am sama benn dafa dama sama benn benn jàngat wala benn benn idée bokk mm-hmm. boo xamante ne man moom loolu laa gëm euh, deux cent quatre-vingts millions c'est c'est pour une seule personne c'est possible pour une personne. Mais pour un pays où il y a 16 millions d'habitants, on a combien de milliardaires mm -hmm. On a combien de multimillionnaires mm -hmm. C'est que Sénégal, le problème qui se pose, et puis je, je précise, étudiant Binek en question, mhm. je parle en tant que Sénégalais. réseaux sociaux, Je parle en tant que Sénégalais, mais mm -hmm. c'est une occasion pour poser un problème de fond. C'est-à-dire 280 millions d'euros du Sénégal. Mm. bu fekkee ne les gens sont décidés à l'aider benn affaire mooy da ngay gis yoo xamante ne c'est c'est c'est frustrant mm-hmm. ay puukare mm-hmm. loo xam ne tekkiwul dara amul benn njëriñ mm-hmm. amul benn njëriñ les gens di si wut tur di ci puukare di ci gis leen ma di ci def ay millions ay millions ay millions loolu la ñu war a xoolaat loolu dañ ko war a xoolaat ña la ñu war a dimbali fan nga war a dimbalee et puis di wax ne sama alloué foorul mais gëm naa ne jaamu yàlla dafa bëri ay façon nit bu nga jaamoo yàlla ci lu bari ci noo ne lu ay këpp-këppal nii rek quoi y a des gestes y a des choses à faire mm-hmm. donc c'est une invitation aux Sénégalais pour ñu ñëwaat dans dans l'application de la solidarité pas mu nekk de la théorie mais mu nekk des faits et loo xamante ne ça n'a rien à voir ak ay ay gouvernement ak ay sommes tous des Sénégalais le Sénégal nous appartient s'il y de solidarité à faire yàqaloo dara wàññiwuloo dara mais je crois qu'il faut chaque jour tu tombes sur ça ñu lay wax avancé nañ tant de millions ñu ngi ci c'est c'est frustrant. mais mais Papis loolu aussi question de culture la. xam nga le monde anglo-saxon xool ku mel ni Bill Gates par exemple ñaata milliards de dollars la jël. def ko ci fondation. donc il faut ñi am xaalis ci réew mi aussi c'est vrai war nañu am un peu culture philanthropie. Ouais. il faut aussi état aider leen ci loolu. c'est-à-dire euh, boo euh, créer fondation. loo ci def par exemple mu jëm ci nit ñi ñu déduire la ko impôt. c'est toute une démarche au fait donc man je pense que euh, c'est vrai euh, cas yu mel nii comme ça se multiplie war na jàngal yenn borom xam-xam yi ku ci mënul am sax fondation nga créer fonds de solidarité boo xam ni yenn borom alal yi laa wax. fonds de solidarité boo xam ne yu mel nii bu amee nga mën a mm-hmm. dimbali nit ñi. Mm-hmm. mais loolu aussi partout mécanisme boobu fu muy fonctionner rek c'est état daf ko accompagner maanaam état bi day xam ni lii boo ko jëlee def ko ci nit ñi. booy def sa faux yu impôt koy dindi. nga xam ne duñ ko war dañ ko bokk ci wala nga xam ne lii voilà boo ko jëlee def ko ci nit ñu du mm-hmm. yàq dara yow ci mm-hmm. euh, liggéey bi ngay def je pense que loolu aussi culture la boo xam ne je pense que war nañ fa dem mm-hmm. parce que chaque jour nga gis ñu la telle personne business am am na ci ay milliards parce que réew boo fa dëkkee liggéey fa ay milliards te milliards bi business bi nga ko defee askanu Sénégal peut-être xaalis bu ci ba ci ci ñoom la jógee dafa am loo leen yoreel loolu mooy esprit philanthropique. d'ailleurs boo xoolee réew mu mel ni États-Unis li tax ñu am alal di def philanthropie c'est que plus tu es philanthrope loo gën a philanthrope sa entreprise di gën a am réputation bu baax nit ñi di gën a jënd ci yow. marketing la voilà voilà donc dafa bokk ci labelu euh, euh, business bëgg nit ñi dimbali nit ñi et cetera Sénégal nag comme ni nga ko waxee papi suñu culture aussi euh, xam nga. c'est difficile nit ñi may gumba wala may muuma Sénégal moom waaw c'est difficile parce que suñu culture la. Mm. c'est-à-dire que ñun dañu bëgg. la ak bu ñuy maye. dañu bëgg na caméra yi teew ak photo yi dañu bëgg waaw il faut ñu tàggaate loolu <laughs> nga maye ci kanamu nit ñeeg yooyu. Mm. mais en tout cas une fois en tout cas li nga wax ni piste bu ñu war a creuser. Mm. oui voilà. waaw mais euh, euh, jàkkaarloo moom parce que même bu ñuy bu ñuy def ket wala ñu kii dañuy dañuy waroo tuuti ci ci ay gis-gis. Euh, moi, je pense que, contrairement à ce qui se dit, euh, il faut ñu comprendre que ni euh, ñun ñëpp Sénégal lañu ñu dëkk. te kenn ku nekk rek ku ku yor dara am nga sa ginnaaw ñoo xam ne say njaboot lañu ñii say famille lañu ñii say cousin lañu ñii say doomu bàyyi lañu wax fa dëgg yàlla nekk nañ ci réew mi boo xam ne ku famille bu am kenn ku ku yor dara gestu nga quand ñi nga xam ne ñoom. de loin ou de près ñoom ñoo la jege je pense que euh, je suis pas trop trop d'accord si si si angle boobu moi je pense que euh, nekk nañu réew boo xam ne contexte bi ni muy demee mooy soo yoree ñi nekk sa ginnaaw ay ay centaines ou voire des milliers de personnes la sa tante sa kii yëpp yaa ngi dimbali peut-être que ay Amérique ak yooyu amu fa maintenant euh, pour man joxe bi waruñu ko wékk rek si ñi am pour man booy joxe yore cent francs joxe ci dix francs ak ki yore 1 milliard joxe ci 100000 euh, geste bi moo am solo et war a encourager gars yi. Mm-hmm. parce que peut-être que suñu wekkee affaire bi ci euh, euh, président Macky Sall rek ne ko génneel 250 millions ak contexte bi nu mu nemee ça sonne bien mais ça peut être compliqué donc pour man bu ñu nekkee di dawal solidarité dafa war a dem ci toute la chaîne ñi am ba ci nekk ci suuf parce que dërëm boobu ngay xeep dix millions de sénégalais yi joxe léegi problème bi rek la donc je pense que quand même on est dans un pays boo xam ne njaboot yi wekku si ñi nga xam ne ñooy borom barke yi dama leen di en fait déema baap nii pour wane yéen a ngi def mais yokk leen ñu quoi mm-hmm. Papis moom il kii donc comme dañuy dañuy ñaan gars yi xaalis <laughs> ñu jàpp yi waaw dañu xaw a kii mais mais je pense que honnêtement on est quand même dans un pays où ñi nga xam ne ñoo yor kas néew ñi ngi ñi ngi def li ñu mën pour quand même dimbale ñi nga xam ne ñoo leen jege mm-hmm. parce que fii xam nga poids social bi dafa am doole mm-hmm. bu kenn tekkee ci famille ñëpp ngay yore donc je pense que loolu aussi dafa mat a dafa mat a relever oh, eh, <coughs> man daf may fàttali déjà suma xarit boo xam man ak moom ñoo bokkoon université benn nekk mm-hmm. eh, yàlla na ko suñu borom yërëm Baye Mor la tuddoon waaye daanaka feebar la amoon moom tamit ba nii maa ngi fàttaliku jour bi muy dem bay dellu si di ma wax ne ma gis na ne réussir na maîtrise am et pourtant quelques jours après il disparaît ca à dire que c'est yoo xamante ni tey kii avec la magie des réseaux sociaux on en parle il faut en parler ku amal njëriñ réewam la mais Dieu sait bari nañ ci ñoo xamante ni tey ñoo ngi ci dans cette situation la ba nga xamante ni kër gi leen euh, fi leen fi leen ki leen ëmb njaboote leen muy université moom la ñu war a njëkk a questionner ci hmm. capacité pour agir dans un premier temps beneen bi mooy état ay mécanisme rek lañ koy ñaan assurance ak yaa ngi fi les sociétés d'assurance yoo xamante ni war nañ ci mën a def ay jéego mais li bu ba wax c'est important c'est-à-dire que la solidarité c'est pas l'assistanat dëkk yi nga xamante ni tamit dañu am solo la solidarité elle est organisée droit la boo xamante ni ay mécanisme la processus la assistanat mooy catastrophe dans nos pays le plus souvent assistanat rek la ñuy def mooy dañ lay rek régler benn problème ponctuel mais mu wóor leen ne problème bi dina amaat jàngoro ji moom dañ koy déplacé mais duñu ko régler définitivement mm-hmm. et euh, c'est c'est un moment très sombre mm-hmm. euh, dama xam ñu ko xam keroog fii la ñu taxaw di ma xaar di def ket bi dañu bëggoon sax organiser téléthon mm-hmm. loolu la ñu bëggoon nga xamante ni ñoo ngi ci def jéego yi donc c'est un moment sombre mais ci biir euh, mbir moom am na lumière bu boo xam dafa dal sama xel mooy des jeunes yoo xamante ni dañu jël combat bi porté ko de avec un désintéressement extraordinaire dem nañ seeti xalif généraux yi dem nañ seeti ñi nga xamante ni en tout cas ku leen tijjil sa buntu dem nañ seeti la donc et loolu je pense que ne c'est extrêmement important bu ñu taxawee sax di bu ñu taxawee nii boo nee ñi ñooy ñaan dañ naan la ñun ñooy SOD mooy Sadio Ousmane Diédhiou di ci def mhm. liggéey boo xamante ni liggéey bu am solo la te loolu ñuy def ñun lañ ko defal encore une fois je pense que il faut une organisation et que ah, ñu ñu et ñu ñu jàpp opportunité c'est-à-dire que pour man sunu réew yi aussi l'autre faiblesse que nous mhm. mooy bu mbir xewee mhm. est-ce que dinañ ko def opportunité pour mhm. régler définitivement eh, exactement problème yi wala pour questionner sax définitivement ñi nga xamante ni ñoo nekk ci cas mel noonu te xëy na mhm. amuñu ku leen waxal ba ñu dégg leen mhm. kenn ku ci nekk ci ñun ñi jamono bu nekk moo ngi nekk mur de lamentation nit ñi di ñëw ci moom di ko kii léegi nag fi mu dal moo métti muy médecin koo xamante dafa war a faj feebar dañ ko war a faj mu wér pour mu continuer liggéeyam boobu noonu la ñu mën a waxee tey jii ci problématique u enseignant yi am na ku ma wax ne ma nañu def benn étude ci enseignants yi ñàkk seen bakkan mu ne ma parce que benn signature rek mën nga cee jaabante Kédougou dakaar deux mois doo am signature bi au niveau du ministère de tutelle donc je pense que yooyu c'est des choses à corriger pour mmh. permettre corps yooyu nga xamante ni euh, dañu am solo pour ñu mën def seen liggéey mais li nga wax c'est tellement euh, important li nga wax euh, qu'on me signale plusieurs am na koo xam ni xaw ma ko woon yëguma ko Mbaye Diouf la ñu wax moom tamit ñi ngi koy ñi ngi koy dajaleel étudiant bu réussir le waroon a jànge ji UGB ba léegi rejoindre gul donc euh, man ki ma ko wax sax yoruma numéro am mais je vois que. moi je y' a d' a cas mais li Pape Djibril wax dafa dafa am solo. évacuation yeeg yooyu yëpp mais nu ñuy def professeur après. mais mais mais c' est que man je propose man je propose ah. oui ma oui ah, ma ba nga xam ni quand même on va on va problème oui. je pense que dañu war a def une émission spéciale sur la solidarité dans ce pays. dafa bëri ay facettes. Mhm. am ñoo xamante ni mu ngi leen dédouaner parce que moi quand je suis ba ñëw créer benn emploi di fay 500 personnes man solidaire solidaire naa on peut te décharger je veux dire que critères yi comment Pape parle d'organisation c'est bien vrai yow yaa ngi invoqué question de culture mais l'un l l'autre mën nañ am benn alchimie boo xamante ni dañu mën a nekk efficace et bu nekk au nom de Dieu mais xam nga nous sommes un pays de foi fii koo si gis day wax muy église bi jàngu bi muy julit yonent bi Serigne Touba Alaaji Maalik on ne fait que ça mais dafa am ay gestes yoo xam ne moom mooy corroborer moom moo koy renforcer. il faut mm-hmm. que les gens les Sénégalais aillent dans ce sens aujourd'hui bon léegi problème bi problème bi mooy lan. c'est-à-dire si on est obligé def assistanat xam nga lu tax Pape Djibril parce que fii amul sécurité sociale c'est ça problème pays yi ngay wax noonu dafa am sécurité sociale ñuy cotiser à la sécu feebar bu la dal lu mu mën a jar dañ lay faj. fii amul sécurité sociale couverture maladie universelle bi fi nekk faiblesse am mooy problème cotisation yépp xam nañ ko on a des des structures sanitaires faibles de par devant des docteurs parce que y a pas de moyen parce que dans tous les pays nit ñi dañuy cotiser pour ñu faj leen fii ñi mën a cotiser ñu tuuti lañ compte tenu suñu population nu mu bindoo pays arabes yi ils ont d'autres mécanismes am nañ zakat house nga xam ni ñi nga xam ni ñooy joxe zakat dañuy jël xaalis bi dugal ko ci benn structure boo xam ne moo koy distribuer mais fii loolu yëpp amu fi léegi bu nit ñi di bëgg a dee fii nan ngay def <laughs> est-ce que dañ leen di bàyyi ñu dee wala ñuy trouver solution c'est ça le problème tout le monde sait que dans l'absolu sécurité sociale moo gën assistanat mhm. mais c'est que suñu réew moo bindee noo xam ne nii amul sécurité sociale couverture maladie universelle bi ngay dégg da nga koy gis da nga koy da nga koy dégg parce que mhm. partout amul benn système d'assurance maladie au monde boo xam ne nii basé ci cotisation parce que santé état ak lu mu bari bari doole ah xanaa bëgg nga nekk sultano domaan wala nga nekk Brunei nga xam ni voilà am nga ay milliards de yoo soxlawul mais bu dul loolu nit ñi dañuy cotiser pour ñu fay leen parce que santé dafa cher amuñu loolu lépp qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait nen rek pour man laa gis comprends mooy en attendant que ñuy am sécurité sociale système d'assistanat c'est aussi simple que ça tey kii boo ko fajul nan ngay def amul structure bu ko mën a jël en charge y' a pas les moyens famille am amu ko moom amu ko nan ngay def c'est c'est ça le problème aussi. Mm-hmm. bon on a des mécanismes yoo xam ne dans le pays pour man e et ça les confréries religieuses par exemple auraient pu parce que bon je connais par exemple benn confrérie bu mag bu dëkk Turquie bu tudd comment mm-hmm. il s'appelle encore ñi moomoon Yavuz Selim. comment il s'appelle encore. Fethullah Gülen ki moom Goulen par exemple il avait organisé un système boo xam ne ni euh, genre caisse de solidarité la defoon boo xam ni da ciy permettre muy jàngal nit ñi di faj nit ñi un peu comme les chrétiens font. Mm-hmm. des fois créer ay dispensaires créer ay école et cetera. comme les xëy na peut-être mënoon nañu fondé wu tuuti suñu confrères yi fii Sénégal créer chaine yu mel noonu solidarité je sais que am na fa je sais que euh, tarixa yi sëriñ yi sàkk joon ñu ngi ci loolu. mais loolu aussi mécanisme la boo xam ne yaakaar naa ne buñ ko xalaatoon gën koo xalaat gën koo pousser gën koo organiser doon na mën na gën a jariñ aussi nit ñi loolu daal laa gis moo je pense que à l'intérieur de notre culture ci dig ci biir lu ñu am ñun mën nañ ci créer mécanisme de solidarité yoo xam ne nii. mais euh, pour terminer pour terminer Bouba Bouba je sais Sénégal ku fi yar dara ñu baree ngi sa ginnaaw. yow de yu bëri rek nañ si. voilà voilà mais ay milliards. dafa bari. mais mais grand man am na ñoo xam ne fii Sénégal honnêtement. Mm-hmm. xaalis bi ñu yor. Mm-hmm. am nañ possibilité dimbali ñenn. mais mais mais mais am na am na am na mais mais man d'accord ma ak yow de. mais moi je pense je pense que quand li ñuy wax li ñuy wax nii pour man si ceux qui nous dirigent volaient moins d'argent le problème aurait pu être être réglé parce que quand même <laughs> dans ce pays on parle tout le temps de de mauvaise gouvernance ci dëkk bi tout le temps ñu ne la luubal nañu temps ci ay milliards def nañ temps ci campagne électorale def nañ temps les ressources de ce pays doivent aller au bon endroit buñ ko defee rek le problème est réglé c'est-à-dire quand on dit il y a des milliards prévus pour la santé il faut que ces milliards la ay effectivement dans la santé si on dit qu'il y a am na différence ak ak de solidarité. Ah. am na différence un peu euh, dans la presse am na. su boobaa bu ñu defee xaalis bi fi ñu ko war a def. ça c'est un cas. xam nga bu ñu defee xaalis bi fu ñu ko war a def. c'est un cas. kii xëy na. <laughs> kañotam du nekk deux cent quatre-vingt millions peut-être il aurait demandé il aurait besoin de. dix millions. waaw mais il faut il faut ñu il faut ñu xool aussi que ni Sénégal. ñi sonn bëri na am na ñoo xam ne ñu ngi seetaan naan naan man mii de donc moom mooy mooy li li li Abdourahmane wax c'est très important mm. kii dafa am chance su daje kii ci mais le problème pour man c'est c'est voilà c'est global mm. ba nga xam ne bu dee ku am problème ñu dem fëggi président Macky Sall ne ko génneel 250 millions nga teg ko ci kaw table bi. bu subaa dina yor xoola 1000 dina ko yor donc pour man. dañu war a trouver ay mécanismes nit ñi li ñu war a li ñu mën ñu def ko. te ñu ñaan yàlla bu problème bu mel nii amee ku ne manifester wu ñun ñi nañu commencé ku ne làmb sa poche. je vais der euh, der ñun ñi il faut ñu après. non bu bu non non du ma ko wax ci antenne. du ma ci wax ci antenne bi mais prenons l'engagement. ah di ko wax ci engagement xam nga wax ji coow toog ci télé bi wax lii nii nii ñun ñëpp nañ jël engagement en tout cas man mun naa jël engagement pour Pape Djibril Papis ku nekk nag sa poos ngay laal lu mu ci mënti nekk Papis man Euh, malal Der Yirim. Abdourahmane je prends je sais que def nga mais je prends le risque de le faire. waaw bu doon sax loolu représente docteur. voilà donc je pense que. wax ñun ñu fi daje nii incha comme tu dis. ak Pierre Da Silva Pierre na yónnee. parce que moom laa yónnee toog ci naan nit yi def leen def leen même bu dee lu représentatif waxuñu kenn kii na ñëpp ku ne li nga. alors defe naa jeexal nga wax bi Franco laay na euh, et je propose je propose ni Papis ñu dugg tamit ci alikala gi couvre feu bi ah état d'urgence bi dem aussi en une minute s'il te plaît fii nag dafa am benn ñu dem ci couvre feu bi fi am problème fii dangay ah. ñëw di yaru boo yaru doo bokk waaw <laughs> ay j'avais j'avais kon mais en une minute ñu dem ci couvre feu beeg euh, conséquences l'étudiant mm. c'est c'est spécifique quoi mm-hmm. euh, seen seen statut aussi assurance maladie oui daf ci am solo parce que mm. au-delà de l'aspect financier moi je pense que l'administration daf ci am njëriñ ne ni ñuy jëlee ay politique di def ay ay ay ay euh, couverture maladie universelle boo amee plus de 60 ans boo ñëwee hôpital doo fay c'est pratique ah ñun ku ñëw hôpital Fann boo amee euh, plus de 60 ans am na acte yoo xam ne doo ko fay nguur gi mi ngi ciy def effort mais étudiants yi aussi il faut savoir que ne ñoom pour ñu inscrire sax problème la ku mel nii tey jii bu dee euh, li buuba wax dama ci d'accord man mentalité ba boobu laa yor bu dee tey jii da ko defal benn wala ñaari nit tu seras obligé de le faire pour dix mille autres personnes parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ moo tax mécanisme tamit am na si njëriñ ni ñu leen di administrer ba nga mhm. xamante ni tey étudiants yi nañ leen defal couverture kii nu mu tudd assurance mhm. maladie mhm. bi lii bu leen dalee ñu ba mën leen jël en charge beneen bi mooy dafa am loo xamante ni beneen yoon dafa war a nekk débat parce que man dama ko doon waxtaanee bi ko Cheikh waxee nii Euh, day olof dafa naan luy luy jibandoo fu nekk rek dafa nekk dëgg. gis nga le le la problématique de la solidarité nationale au Sénégal jëlal le cas Cuomo xam nga kii bosam feeñ na. Cuomo mhm. fondation la. madame Cuomo c' est une euh, espagnole su ma juumul. Mhm. tabaxal leen un bâtiment de cinq milliards. boo fa demee ça répond aux standards et tout ça. Mhm. ay xale rek euh, pédocardiologie pédocardiologie. mais il faut savoir aussi malgré. li fa première dame def malgré seen grand frère def na fa. ñuy jàppalee parrainage bi système bi. nit dina ñëw indi fa doomam ñu war ko opérer jour bi mu mëtlee yalwaan na bay bëgg a dee jotul président jotul plateau bi jour bi mu mëtlee. jour boobu la doomam di dee. parce que ay ay facture de 3 millions 4 millions c'est pas accessible. combien de sénégalais parce que tamit xam nga débat bi boo ko tegee mooy ndax sénégalais li muy prétendre chaque fois mi ci moom. ñaata milliards ngeen di wax mooy génn Touba ci màggal ñaata milliards mooy génn Tiwaawan mooy génn Kaolack ñaata milliards le président de la République yor mm. un fonds de solidarité nationale dédié à la santé et l'éducation mm. dootuñu bu ko gérer parce que wax nga ko problème de bonne gouvernance et de mal gouvernance et de confiance mm. tey jii boo tegee un cadre bi war mu am transparence mu nekk xaalis boo xam ne lépp lu jëm ci santé dañ ko ciy def parce que gars yi la santé coûte man mm-hmm. fa fan yële ma am malaat sama soxna feebar. mais ba ma demee ñu ne ma coronarographie bi six cent cinquante mille la. Mm. mais damay fëgg ma ne alhamdulilah bu yàlla def loolu ma nekk agent. am am am am am am am prise en charge. qu'est-ce que j'allais faire man mënu ma débourser noonu deux coups. ñaata Sénégal la ñuy dund loolu. donc il faut que chaque fois ñu def ci sérieux man la éducation ça termine que ça parce que ça te dit c'est subjectif mënoo ko wax. Mm-hmm. mais le sérieux mm-hmm. dans la prise en charge de ces problématiques avec des politiques yoo xam ne dafay mm. tegu ci yoon. Mm-hmm. boo wooyee nit ñi ñu participer nit yi nañ participer problème yi nañ ko dépasser. alors professeur vraiment pour euh, une minute xëy na nga wax ci euh, et qu'on puisse passer. <laughs> bon en fait euh, moi je. vous avez li la fi indi parce que pour moi le problème mënul wax ministère de la santé. parce que ñi nga xam ne ñu ngi liggéey. waaw ñun ñoo am pris en charge. waaw les salariés. ñoom ñu de la caisse de sécurité sociale. y a même des non salariés qui peuvent cotiser. mais est-ce que cette information elle est en tout cas accessible. ce qui fait que pour cette catégorie la stratégie que vous dont vous avez fait montre la solidarité. mais il faut commencer par ñi amul dara ñoom ñooy njëkk a joxe sax ñoom mm-hmm. comme ça kuy joxe cent francs ak deux cent dina inciter le milliardaire ouais. à dire ah mais ouais. moi je vois des gens qui ont, ouais, qui n'ont rien donc, et qui donnent voilà je pense que ça aussi c'est un débat mm -hmm. où le ministère de la santé avec sa direction de l'action sociale mm -hmm. devrait peut-être être invité pour essayer de trouver Inch'Allah Papis euh, donc euh, proposition adoptée benn virgule rek bu ndaw virgule oui bu ndaw mm-hmm. milliardaires yi bëriwuñu fi de coow lay fi gën a bëri. Hmm. lu leer la ah, multimillionnaire boobu mais am na am na bëriwuñu de alors professeur. première question am na am ñu am xaalis. am na ñu am xaalis ok. am na ñu am xaalis lool. dañ leen déglu évidemment mais ni ngeen koy waxee noonu. réew mi gars yi soob lañu. ay milliardaires en dette lañu. waaw yow ci ay bor. lu leer ah, milliard de bor la ñuy yore. professeur. oui oui couvre-feu bi état d'urgence bi. ndax am na njëriñ finalement quelle est la pertinence ñu bëri euh, sa pose des questions franchement euh, je parle à mon nom propre mhm. euh, parce que quand on fait le couvre-feu c'est l'idée c'est la libre li limiter la circulation la personnes nga jéem wax wala euh, maanaam bu ñuy def couvre-feu mooy maanaam ñu tënk ci gàttal dañuy jéem a tënk nit ñi ci seen dem ak dikk bi moom la ñuy jéem a wàññi mm. mais buñ ko defee pour lan la est-ce que du pour Covid maladie bi moo tax. Mhm. waa léegi guddi gi maa la question que je me pose je maa ngi doon xalaat naan waaw léegi li ñu def nii ban maanaam. Euh, jeexital jeexital la am ci ci ci jàngoro bi. parce que bëccëg bi la nit ñi di di yëngatu. guddi gi nit ñi ñu ngi toog ci seen kër yi bon ñenn ñu ngi dem donc euh, man comprendre ma foofu sur ce plan. euh, la portée de ce couvre-feu. Mm. Mais peut-être c'est une autre façon de pousser aussi les personnes parce que nit boo ko xañee maanaam dem ak dikkam. Mm. dina war a toog xalaat ne mankat kat lii ñu may loo nii c'est parce que en contrepartie dafa am lu ñu ma wax defuma ko moo tax ñu demal xaj na bu ma defee liñ ma wax ñoom dinañ jéem a teggi loolu ci ci sunu kaw. Mm. bon donc c'est une façon pour moi de pousser nit ñi à ce que ñuy def respecter mesures yooyu ñu leen di wax les mesures barrières. takk masque yi parce que léegi man gis naa ne nit ñi toppatootuñ woon sax mm-hmm. affaire masque waxatuma sax ay kii la distanciation dangay dem gis nit ñi ñuy dox di wax buñ la gisee nga sol masque sax ñu defe ne yow on te diabolise en fait mm-hmm. et donc pour moi la le couvre-feu c'est peut-être une mesure dissuasive mm-hmm. xaw ma nu ñu koy wax ci wolof xoo xoo en tout ah, pour pour ñoom nit ñi mesurer gravité. gravité problème parce que tant que yëguñu ne c'est et puis li ñuy def du pour ñoom du pour ñeneen ñaa ah, pour ñoom la d'abord booy protéger di sol masque c'est pour yow la d'abord. Mm. avant ngay xalaat ki ci des donc nit ñi aussi foofu am na problème de communication bu mag. parce que j'ai l'impression que ba léegi nit ñi comprendre ñu lu tax ñu naan leen mesure parce que ku nekk yaa ngi naan ah man solo masque et cetera donc. je pense qu'il y encore à développer la stratégie communication bi jokkoo gën a wax nit ñi. Mm-hmm. ñu insiste ci jàngoro bi li muy li muy lor ñu ngi koy gis. Mhm. mais wax c'est pédagogique. ñu jéem a mhm. mais pour le moment daal impact bi nii. Mhm. ci kanam tuuti it dinañ wax ci vaccin ndax euh, macha allah ci sa jaar-jaar euh, am na vaccin yu bëri yoo xam ni def nañ ko fi yàlla dogal na sa loxo la jaar validation bi ñi ngi laam-laamee vaccin bi war nañ ko def waruñu ko def baax na baaxul. incha allah euh, di nga ñu ci gindi tamit alors Abdourahmane ni ñu ko waxee couvre-feu bi ndax mesure boo xam ni la am na pertinance ak yeneen yi ko accompagner retour au couvre-feu. waaw couvre-feu ci boppam ci boppam dafa am njëriñ. Hmm. bu ñu demee nag bay laajte ndax jar na comme jaru ko ça pose problème la pertinance bi couvre à une certaine heure vingt et une fekk nit ñi laamisoo nañ ba pare jaxasoo nañ ba pare. Euh, opportunité de transmission yooyu yëpp am na ñu ne ñu vingt et une dem leen toog seen kër parce que booy seet en général autant à l'intérieur du pays que dans Dakar c'est vrai que ne am na ay jeunes yuy traîner et tout ça quelque part naan ataaya yooyu mais vingt et une ñi war a dem xëy liggéeyeek ak ñi dëkk fu sori yëpp ñi ngi dugg seen kër bu doon couvre-feu la boo xamante ni tey jii dix huit heures la lañ ko imposer nit ñi parce que li li li nekk loo xam ne kenn mënu ko contester der hmm. ñun ñemewuñ ko contester la maladie elle la mm-hmm. ba démb ci guddi heure bii man j'ai appelé le professeur Seydi pour mu intervenir pour ñu mën a intégrer benn malade bu cas grave ñuy wax ay affaire de manque de lit bu ñu nekkee hôpital di liggéey. yow foog nga woo professeur Seydi pour ñu jël un cas grave waaw am na fa un cas grave boo xamante ni lal amu foon. te ñoom yëguñu ko. certainement mujj nañ ko jël au niveau de la l'accueil urgence hôpital Fann mais pour vous dire que même au niveau des maladies infectieuses dafa fees dafa fees ñooñu fay indi di leen fay hospitaliser man góob man dañoo bëgg tëdd yàmbal ak noppalu moo tax ñu ñëw tëdd fa jaaxaan. nit ñi am nañu autre chose à faire. Oui. la maladie elle existe nous-mêmes qui vous parlions qui vous parlons ba ñun on a été atteint man tëdd naa hôpital presque vingt jours au-delà de ma personne mais dama nekkoon ak ay nit yi ci biir foofu ñuy hospitaliser ñuy wérul. sama waajur wu góor maa ngi koy ñaan mu jéggal ma mais amul lu ñu fi nëbbu dara na ko ñu nekk di faj donc nit ñi amuñu temps bu ñu perdre ci ci ci feebar bi loolu il faut ñuy wax ko Sénégalais yi ñu xam ko ne ñoom bu dee dañu am immunité bu dee dañu am ay résistance ak yeneen am na Sénégalais yoo xam ne ñi ngi feebar donc feebar bi une réalité la maintenant niñ ko ni ñuy aborder la prise en charge depuis le début parce que tey jii la pandémie elle est à en tout cas à tendance communautaire parce que ku la doon wax da doon am ay cinquante cas contacts ñëw ne la am na cinq euh, cas communautaires tey mu lay wax am na ay cent et quelques cas communautaire cas contacts yi di réduire yaa problème parce que am na tamit lu ñuy wax approche dafa inversé wu parce que ci njëlbeen ci njëlbeen ñun bokkoon nañ ak waa révocat yi ci ñu doon attirer seen attention parce que dañu amoon chance am benn waaye bu ñu nekkoon Congo ci Ebola bi. Mhm. bi mu ñëwee li ñu njëkk wax mooy moytu leen cas communautaire. Mhm. parce que cas communautaire bés bu amee rek dafay déborder kenn dootu ko mën a arrêter. on en a parlé à beaucoup d'autorités malheureusement dégluwuñ ñu bu baax parce que fii ku wax rek dañu foog ne dafa am loo ci sàkku. Mhm. nii ab defee l'approche. la gestion de la riposte depuis le début ça pose problème. parce que tamit Sénégal dafa bëri ay pàcc état. du caaxaan dafa metti nañ ko nangul ñu yor réew mi benn ñaar du ñu bokk ci ñu naan ay cuune la ñoo di sànni xeer parce que gëm naa ni à l'état à l'échelle mondiale et à l'échelle nationale ñu fi dénkoon Covid bii lu weesu nga def bonne gouvernance ak transparence ci xaalis bi ñu ciy joxee gëw ne di nga am de meilleurs résultat parce que tamit il faut accepter que Sénégal euh, la population aussi yaa dafa am nu muy dundee noo xam ne neexul gere feebar boo xamante ni day wàlle ci bët ci gémmiñ ak ci ay loxo. Mhm. nit ñi dañuy dem marché. Mhm. parce que am na koo xam ne bu xëy dem marché. Mhm. du am lu mu yóbbu këram pour ñu togg. ñun dañuy dem liggéey ji par exemple hôpital lañ ne même bu dul fajkat laa dafa am liggéey boo xam ne ci chaîne bi la bokk. il faut ma def ko kenn du ma ko defal. médecin bi naka noonu. infirmière bi naka noonu mais Sénégal yëpp dañuy actif de telle sorte que mooy li ma doon wax sànq cette problématique là se repose. mooy depuis le début. le autorité bi. waroon mën a xool ban mécanisme lay teg en place pour ñu mën a aborder la chose ba pare impliquer ci les élites les leaders communautaires parce que tamit tey jii am gëm naa ne xale yi génn ci couvre-feu bi di kookali gëm naa ne une certaine frange très réticente par rapport au respect des principes yi nga xam ne moom lañu teg am na nit ñoo xam ne bu ñu waxoon ak ñoom xëy na dañ leen déggal mhm. mais dama jàpp ne que gouvernement bi dafa xaw a isolé wu mhm. ci liggée bi jël ko def ko seen i mbiri bopp. ñu njëkk fi indi coowu ceeb déwlin jël renverser la chaîne au lieu ñu xool comment organiser la riposte les gens nous ñu disent am leen ceeb am leen déwlin te kenn xiiful kenn marul ba mu indi ay jaxasoo ba mu indi manque de confiance ba mu indi ñu banaliser. le mm-hmm. le virus ba tey jii mu commencé ñu ëpp doole donc il faut que ñoom tamit ñu assumer seen part de responsabilité mais nag mais nag patriotisme parce que man ce que je n'ai pas pu comprendre mooy président de la république dafa xëy woo ñi nga xam ne jàpp nañ ne que ils sont à sa portée. ñi ay leader de parti politique lañ ñi ay ay ay ay leader euh, mhm. d'opinion lañ. Mhm. man bëggoon naa xam lan la leen doon doyee. ñoom it bi ñu fa demee wuy ji ko bëggoon naa xam lan moo tax ñu wuy ji parce que boo leen demee waxtaan ne am na loo xam ne mi ngi ñëw ci réew mi na fee indi lor man dama jàppoon ne président bi daf leen doon sas ay liggéey wala impliqué leen ci gestion bi parce que am nañ fa mënee. ñii mën nañ def wax naa ko fi ay waa yaa naa maar du ñoo fi dàq sensibiliser mais mënoon nañ dugg ci sensibilisation bi ñeneen ñi dem di distribuer masque parti politique yi ils mobilisent quand quand il le faut bu ñuy dem campagne euh, électorale du da di mobiliser seen i organiser leen yéen ngi mobiliser seen i ay fonds mais nous sommes à cette de solidarité nationale boo xam ne président de la République dafa waroon sas ñooñu amatul kii opposant la amul kii mu sant leen ay mission ko deful ñoom it ñu am taxawaay am seen participation mu ñu def ñiy jël seen i dërëm def ko ci ñu jàppale askan wi et non le gouvernement parce que lii bu continuer it day indi fitna rek Sénégal lay gën a suux suuf. sauf que man waxtaan naa euh, der man la waxtaan naa ak benn ba la may ñëw fii boo xam ne ku jege fii la. Hmm. xam ne wax na ma loo xam ne nii daanaka bariwul lañ koy wax ci rajo. Hmm. danaa ci wax aslëf. waaw feebar bi ni mu bindoo woon ak ni mu bindoo léegi du benn. Hmm. feebar bi dafa woon ci ay cas contact léegi dafa doog cas communautaire mooy la gën a metti maanaam kaa yi doo xam fu muy jóge léegi jóge ci biir askan wi te feebar bi dañ daan xam fan la daan jóge ndax cas contact la maanaam kii dama koy am mala la ma ko jox malal fii la jóge ñu topp ko loolu moo amatul maanaam feebar bi dafa jóge léegi directement ci askan wi xam loolu dafa garaaw deuxièmement euh, ñoom dañu seetlu ni couvre-feu bële ba mu amee am na lu bari lu mu ralentir ci ci feebar bi ndax lan parce que ni ma amee contact bëccëg la amee contact guddi c'est tey boo tëjee guddi gi contact yi doon am guddi gi yëpp nga tëj ko tere ko dina am loo wàññi ci feebar bi mais li gën a garaaw mooy psychologie de crise dafa am boo tëjee nit dañuy xam ni feebar bi am na donc loolu lépp dafa bokk ci li tax stratégie ñu tëj pour parce que nit ñi dañu demoon ba fàtte. stratégie yaakaar ni feebar bi amatul. boo tëjee nag dañuy xam ni feebar bi am na. mais li gën a garaaw du loolu yëpp. mooy Sénégal moo amatul lal cest à maam li arrivé woon France. dem ba France di jël ay feebarka ñu feebar di leen yóbbu Suisse ak Allemagne. foofu la Sénégal toll. maanaam capacité yi ñu am ci lal pour recevoir maladie moo dem bay bëgg a jeex. parce que feebar bi aussi il faut nit ñi xam ko kenn amul kenn amul ay l'hôpital yu mën a faj feebar bi yëpp bu tollee fenn fi mm-hmm. feebar bi leen rek moo koy faj fexe ba mu bañ a tas benn tas bi mm-hmm. bu tasee benn tas bi rek comme par exemple Angleterre mm-hmm. xam nga Angleterre amul dara amuñu benn intérêt tey ci ko mais problème bi mooy Angleterre dem nañ ba nga xam ni lenn rek moo mën a xew tëj réew mi wala nit ñi commencé di daanu wala ñuy dee ci mbedd mi que du ñu am fu leen di faje du ñu am fu leen di denc du ñu am corbillard lu leen di dugal loolu mooy problématique bi. maa maa ngi gis titre bu ma tiital pour foofu maanaam Londres submergé voilà voilà léegi nag. loolu moo tax ba pare am leneen lu am mooy feebar bi dafa dafa soppi ni mu meloon parce que feebar bi benn moment euh, benn moment demoon nañ ba téye ko xam ni mu mel. Hmm. moom am lu ñuy war beneen variant maanaam beneen melo. waaw boo xam ne feebar bi dafa ñëw léegi mel ko. Mhm. te melo bu bees bi li tax mu garaaw mooy dafa gaaw wàlle mhm. te moo gën a metti fo nit ñi xam ko c'est-à-dire feebar bi ni muy bindoo ni mu bindoo léegi. Mhm. moo gën a gaaw wàlle maanaam c'est plus contagieux de 70 pour cent c'est-à-dire tey. boo doon wàll tey. yërim yéex yéex nga wax loolu de da nga ko wax rek buuba takkaat. non <laughs> maanaam loolu. voilà xam nga loolu yëpp donc boo ko boolee. <laughs> loolu yëpp boo ko boolee. ak yeneen information yoo xam ne nguur gi am na ko te amuñu ko. parce que loolu aussi. il faut même si yërim euh, bon gën a gaaw a wàlle bi. Mhm. borom xam-xam yi d'accord na ci mais gën a saf moom. bon nit ñi xam nga la ñu bëri ñu ñu bëri nee nañ ndax moo gën a. saf gën a saf bi defal naa gën a saf bi. c'est relatif xam nga scientifique yi luy xaw a bees. waaw dañ ci kii mais jubóowuñ ci daal laa bëgg wax mais gën a gaaw wàll bi rek. voilà gën a voilà gën a gaaw wàll bi moom léegi nag. loolu yëpp nag moo tax moo tax ñu tëj yëf yi léegi nag dans l'absolu. Mhm. Hmm, tëjoon lépp feebar bi dee moo doon solution. tey réew yi nga xam ne amuñu solution comme Angleterre ak yooyu dañu xëy suba tëj lépp pour rey feebar bi hmm. tu ñun nag amuñu moyen yooyu Sénégal déjà fi mu toll nii rek daanaka euh, réew mi lott na hmm. euh, alal amatul ci réew mi koom-koom bi daanaka taxaw na hmm. donc amuñu choix donc réew mi il faut muy fonctionner bëccëg bi logique bi ñu nekk nag mooy nu ñuy def ba sauver les meubles maanaam nu ñuy def ba limiter dégâts yi. Hmm. foofu la nit ñu toll. Hmm. xam ñu ñun nag responsabilité média yi ñu am ñu war a wax ni. Hmm. amul benn intérêt c'est-à-dire je veux dire amul benn état boo xam ne am na intérêt ñëw tëj un pays pour le fermer. tu comprends je veux amul benn intérêt parce que loolu sa suñu rakk yi laay ñu nekk ci di manifester ak yooyu. gisuma man intérêt bu Macky Sall mën a am ci xëy suba tëj réew mi nii bizarrement amul solo je pense que am na menace boo xam ni ak feebar bi ni mu bindoo noo xam ni. tax na ñu def couvre-feu maintenant nag là la le gouvernement pêche pour man c'est au niveau de la communication communication waaw ouais. c'est-à-dire autant première fois bi dañu communiquer woon nit ñi comprendre xam autant fois bi yëf yi dafa timoré pour man il faut une communication plus agressive mm parce que feebar pour man fi mu gën a grave foofu nga war a def communication bu ëpp doole mhm. tu comprends mm -hmm. quitte à ce sax yoo xam ni peut-être secret défense la nga wax ko nit ñi pour nit ñi xam menace bi fan la toll. je pense que nit ñi ñu bari ñu ngi manifester nii. parce que xamuñu menace bi fan la toll. Mm. bu ñu xamoon menace bi fan la toll nañu xam ni tëj bi am na lu tax. ok Pape Djibril xam nga nu mu ko doon woowee finalement dama ni gaañ ñi ngi communiquer ah Yérim ñi ngi wax mais déggatuñ leen. dafa mel ni problème bi foofu la. foofu la est-ce que waruñoo soppi kon parce que booy wax dégguñu la. ñaar rek moo mën a nekk. Mhm. nga wax mu gën a kawe. oui wala boog nga soppi. ni ngay wax nga changé effectivement. Pape Djibril bismillah. dama jàpp ne situation exceptionnelle mesure exceptionnelle comme ni ñu doon ko waxee. Mhm. waaye xam nga déjà bi ñuy annoncé ne deuxième vague am na président daf ko def en marge d'une d'une cérémonie bu amoon euh, ci jam ñaajo ci la wax ne il y a l'éventualité d'une deuxième vague te économie Sénégal du ko du ko àttan boo xoolee keroog aussi bi ñuy jël directive bi dañu toog ba ci yàgg rek ñu ne moo ngi en réunion d'urgence euh, au palais ba ci yàgg ñu ne couvre-feu am na mhm. euh, état d'urgence assorti donc couvre-feu euh, la pertinance ou pas ci couvre-feu bi ndax am na solo amul solo euh, adduna bi bu doon Sénégal rek moo ko def ci àdduna bi yëpp mhm. mën nañu questionner la pertinance oupa mhm. waaye boo jëlee ba ci Canada Québec fi mu ne nii dañuy dem couvre-feu pour quatre semaines. samedi à partir de samedi. Mm-hmm. samedi dañuy dem. Mm-hmm. problème bi kay mooy ndax réew ma koy def dina ko attan ak du ko attan. Mm-hmm. wala ndax réew ma koy def finalement leneen lu dul Covid du moom mooy rey nit ñi wala déet. wala ndax ndax xam nga réew yooyu di am couvre-feu ñooña wut nañu yoon yoo xamante ni ku bëgg lekk mën ngaa toog ci sa biir kër ñu indi la nga lekk. dinañ la jox dàmp <coughs> loo xamante ni xëy na loo xamante ni soo soxlaa lekk di nga ko mën a jëndee lekk donte boo liggéeyul dinañ am ay mesures d'accompagnement yoo xamante ni euh, assez huilé ba nga xamante ni lépp loo soxla xëy na mën na laa fekk fa nga nekk donte euh, nga xam lor loraange du bari waxuma ne du am waaye du bari fii nag loraange bi xëy na ni muy demee moo tax nit ñi di questionner sax euh, pertinance am wala soit ñu ne ndax bu gënee yàgg du gën a sonal nit ñi donc li ma ci forme bi laa doon wax ne gravité bi moom manqué e foofu la ñu raté communication bi gravité bi parce que comme lu am solo la comme ñoom jàpp nañu ne am nañ information yoo xamante ni nit ñi amuñu ko mais le président de la république mën na saisir opportunité boobu nga xamante du nekk communiqué parce que ni ñu ko génnee noonu après RTS ak yooyu c'est très bien mais mu annoncé ne suba dina wax ak aska wi 20 ndax jàpp na ne mbir mi toll na foo xamante ni foog mu wax ak askan bi loolu doon na am solo trop loolu mooy la stratégie bu njëkk bi ma jàpp ne dañ ko manqué mooy solennité beeg la gravité leneen li mooy ñi nga xamante ni ñoom la ko dénk xam nga depuis le départ dama doon wax ne te bu ñu demee sax ba xamante ni ñi ñu ko dénk muy le ministère de la santé ñu góorgóorlu ci bay bëgg a dee bu ne ñoom dem nañu ba miin leen ndax doomu aadama moo baaxoo rek lu mu miin boo moytuwul mu yàpp ko ñu ne léegi est-ce que du ñu changer ñi xamante ni ñoom ñoo koy gérer cette fois-ci waxuma ñu changer carrément le mais cadre bi ñu changer ko ba nga xamante ni ñooñu dina ñëw avec un discours nouveau boo xam dina du du 109 boo xam dina gën a percutant pour nit ñi gëna mën a dégg leneen leneen li aussi mooy par rapport toujours ak couvre-feu bi mm. xam nga yu mel nii tamit moo tax keroog sax gis naa le ministre Abdoulaye Diouf sar bi mu demee RTS ci biir waxtaanam moo ngi génne cartographie bi nii di wane Dakar ak yooyu mm-hmm. mais xam nga yu mel noonu ak fii euh, infographie toll ak fii visuel toll mais bu fekkoon ne communiqué nañ ci cartographie loolu doon am solo ci communication bi ñoo xam fan moo gën a métti au-delà de tëj parce que boo tëjee Dakar guddi gi tëj Thiès guddi gi mais est tey ji dañu war a egg ci cordon sécuritaire comme ni ñu ko defee woon ci couvre-feu bi nga xamante ni le transport interurbain dañ naan dañ koy arrêté mhm. bu fekkee ne lu choqué conscience collective rek la ñu bëgg nga xamante ni su boobaa dina leneen li mooy yeneen réew yi nga xamante ni dem nañ ba egg ci ba nga xamante ni nit ñi eggaat nañ fii mooy scepticisme bi ñi naan comme li Abdourahmane doon wax léegi ndax am naag amul wax dëgg fa yàlla pour man sénégalais yi def nañ ay jéego ci wàll woowu ndax am naag amul ndax kenn ku ci nekk wax nañ la koo xamante ni xamoon nga ko xam jàpp nañ ne feebar bee ku fi jëlee mais bés bu ñu wanee nii ñuy waxee ne nit ñi dee na bés bu ñu wanee kees yi ñu rangale leen mais mën na indi benn effet boo xamante ni psychologiquement mm. mën na dimbali ki nga xamante ni da doon wala ki nga xamante ni da dafa bàyyeeku woon ci geste barrière yi mu gën ci góorgóorlu mm. mais li nga xamante ni bëgg naa ko laaj Abdoulaye Der mm-hmm. te mu ma jàpp ne c'est important pour quelconque situation bu mën di am te Abdourahmane wax ko léegi ne dafa am na ku am problème mu lii mm-hmm. waaw ba Covid bi commencé ba tey ñaata lii la ñu dolli ndax loolu mën nañu see dimbali. Mm-hmm. ñaata appareil respiratoire la ñu dolli nan la ñu yaatale fi nga xamante ni foofu lañ leen di jëlee en charge ñi nga xamante ni ñoom ñooy taxawuñoo ñu muy le personnel soignant nan la ñu dollee seen kattan. ba nga xamante ni dinañ gën a mën a liggéey bi nga xamante ni ñoo ngi koy def parce que wax naa ko c'est un système boo xamante ni depuis longtemps efficience rek lañ koy wax beaucoup de résultats pour peu de moyens est-ce que renversé nañ tendance bi ci biir Covid bi ba nga xamante ni personnel soignant bi damp nañ leen damp yu am solo ba ñu mën a gën a def liggéey bi ni mu gën a mucc ay bien vrai que c'est un sacerdoce pour donc loolu tamit bëgg naa ne ñu ñu dimbali ñu ci ba nga xamante ak li nga xamante ni aussi wax nañ ko mooy centre régionaux yi nga xamante ni nee nañ à un moment donné dañu ko tëj. dañ ko tëj c'était xamuñu li nga xamante ni war ko ubbiwaat malal ñu ñu bëri ci couvre-feu bi seen problème mooy 21 heures bi xëy na teel na am na ñoo xam ne y a une économie boo xam ni de survie entre guillemets laa koy. tuddee moment boobu yow comme yaay représente ni may wax banlieue bi xam naa di ñu ci mën wax bu baax mooy maire koñ ba doon jaay cere ñi nga xam ni ñi ngi woon ci pain ndambe yi aussi pour euh, ah ñii di jaay fonde c'est c'est c'est compliqué ñu bëri ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñaan xëy na bu buñ ko mënoon yéegal encore même d'une à partir de vingt deux heures mu xaw a tane bon xam nga déjà nit ñi mm. ñëpp d'accord nañ ni feebar bi am na mais nit ñi aussi il faut les préparer c'est-à-dire c'est irrespectueux en mois de vingt quatre heures en mois de quelques heures ñu ne way gars yi suba vous ne sortez pas hmm. su boobaa nday abba bi ngay wax te mu dëkk sama koñ nday abba day jaay nen di jaay ndambe <laughs> di jaay fonde di jaay cere di jaay spaghetti dañ koy ram c'est économie mm-hmm. ñi fay reere aussi moyen yooyu la am pour reere si Ndeye Abba parce que c'est beaucoup plus consistant ni ma xamee ni Ndeye Abba am na solo koñ ba mooy nous à l'intérieur de notre centre on a essayé pour un peu moderniser def fa benn waaye buy jaay hamburger ak pizza nit ñi ñaari fan lañ fa jënd hamburger ak pizza mais dañ na doyu leen parce que effectivement suuru leen il faut que Ndeye Abba jaay leen mburu bu am ndàmbee am affaire yooyu donc li ma bugg a comprendre mooy boo ñuy tëj nañu 9 heures tel il faut nu don 9 heures 5 heures du matin il faut nous donner l'argument scientifique ba pare nga ne Dakar Thiès Kaolack c'est une région à forte densité Touba c'est une zone à forte densité waa Dakar même boo leen tëjee tey bu ñu yeewoo am na waa Dakar yuy feebar dem Thiès am na waa Dakar yuy feebar dem Diourbel ce qui veut dire que ça ne règle absolument rien affaire bi yëf pour man on est dans du cinéma et puis ces jeune là qui sortent n'oubliez pas que ñu ngi dakaar booy yi nekk dakaar di génn dans certains quartiers fan lañ dëkk ay Médina pourquoi booy yi di nopp parce que gàlle yi dafa xat 6 heures du matin la booy yi mën a tëdd wala 5 heures du matin le temps que certaines personnes yeewu pour ñu mun leen remplacer si yeneen yenn néeg yi mm-hmm. et puis également amuñu ay par par exemple Sika ni ñu tabaxee kër yi configuration bi lan la woon bu njëkk seetee papa yaay doom ci diggante bi paa bi am màgget na dem na retraite mère bi retraite na doom yi am nañ ay sët wala paa yi am ay sëtaat ñu ngi ci gàlle donc peut-être que même sax waañ bi mën na nekk nelawukaay bu fekkee nit ñi mënuñu nelaw ci waañ qu'est-ce qui va se passer les gens attendent dehors calmement et puis les gosses ils n'ont pas de travail boy yi amuñu job donc en fait ne serait-ce que ce petit mouvement qu'ils font dans les quartiers ça les aide à dissiper une certaine un certain souci social sa da leen di dimbali pour effectivement ñu ñu fàtte coonooy ñàkk liggéey c'est-à-dire dire xaaral ma nopp ah ma rey naaj bi ak benn caayan xaaral ma rey naaj bi ak benn nuit blanche xaaral ma rey naaj bi sama kër gel mais amoo sax possibilité dem sa kër gel oui amoo possibilité bi parce que 9h dañuy couvre-feu et cetera et cetera et la prostituée dans la rue elle elle ne travaillera pas caga bi du liggéey te caga yi dañu war a liggéey également <laughs> mais oui mais c'est du tra c'est autorisé état moo leen jox carte c'est aussi du boulot hein c'est-à-dire il la mais oui mais mais bon ñun bu ñu génnee ni wàcc dootoo gis caga bu taxaw. parce que elle travaille c'est un Malal, métier Malal redevient sérieux s'il te plaît non mais je veux dire c'est un métier reconnu par l'État hmm. c'est vrai aussi, ok on xam nga xam nga peut-être jugement bi ngeen si am c'est peut-être religieux wala confrérie wala diine wala aada et cetera hmm. mais dans la réalité des choses ñooñu bu ñu joobee ba pare dañuy fay courant fay ndox jënd ceeb diwlin ak suukar ak meew et cetera et cetera dañuy dundal ay famille booy jiitee réew da ngay jël tous ces aspects en compte aspect yooyu munoo leen munoo leen munoo leen négo munoo leen négliger et ces gosses-là qui les rues ils sont en train de donner un message c'est-à-dire il y a un président de la République qui a dit à dafa dañu am président bu wax dañu am président bu wax ci kaw na man duma ragal les jeunes ils entendent le message et ils le perçoivent autrement mm. par exemple bu président taxawee new man duma ragal la et puis la question ki biñ ko laaj amul lenn lu ko mën a sax pousser ba mu ne duma ragal mais effectivement quanti tu dis que ragal les jeunes ñi toll ci seen diggu ndënd toll ci seen doole ils montrent aussi qu'ils zone de l'énergie et aussi que am na ñi leen fi jiitu bi ñu tollee ci ñoom dañ doon taxaw di bañ c'est-à-dire il ils perçoivent le truc autrement ils disent mais waa ji xanaa daf ñuy jéem a tegal lii ndax dafa am lu muy waaj donc ñun duñ ko ci bàyyee et puis manifester la nuit c'est quand même assez dangereux parce que y a les agresseurs qui en profit pour braquer ay boutiques dajji ay magasins def ay affaires il faut que ñu sécuriser dëkk bi sécuriser dëkk bi en disant effectivement nañu bàyyi gars yi ñu circuler ubbi boîte de yi gars yi jouer nit ñi am xaalis on di effectivement les mesures barrières lii la ak lii respecté leen ko énergie bi ñuy def ci policiers yi ak gendarme yi pour ñuy veiller au grain mais na ñu def cette même énergie bu ñu ubbee saal yi pour vérifier est-ce que les mesures son respectées dans les boîtes de nuit et dans les salles de spectacle. jàmm na ñooy. allez Bouba voilà euh, après. waaw mais man man en tout cas je je pense que euh, am na fu mbir di toll. Hmm. ñun ñëpp dañu war a jox rendez-vous ak euh, ak ëllëg ëllëg dafay parce que bëri na lu ñu maîtriser wul damay wax tout le temps ni ñun ñii ki suñu euh, dund nii ñu fi nekk ñëpp kenn mësul jànkoonteel ak lu toll nii donc am na lu ñu maîtriser ak lu ñu maîtriser wul mën ñu rafet njort mais aussi mën nañu ñaaw njort amul kenn ci àddina bi fu mu nekk nii kuy dund lu la neex suñu mbokk sénégalais yi nekk ci diaspora bi am na ñoo xam ne peut-être que émission bi rek la ñu am toute la journée ñu ngi si un petit appartement ak seen njaboot ñu bloqué leen fa ñu sore seen dëkk seddaay bi di leen rey ñu amuñu lu ñu yónnee seen njaboot mais ñu ngi foofu toog ñu téye leen foofu am na sax ñu amul kayit donc man man damay wax tout le ni il faut ñu commencer wax ak beaucoup de responsabilité parce que euh, ñu naan bët du yan waaye xam na lu bopp attan ku newul coronavirus bi dépassé na état wu Sénégal da ngay nax sa bopp fu mu ne amul fenn fu nit di yootu koo koo yóotu mu dimbale la bopp ay problème moo ko ëpp on est dans un pays sous-développé yoruñ dara te wax fa dëgg yàlla fii mbir yi toll lenn rek moo ci mën a génne mooy que c'est prise de conscience individuelle de chacun nan waxante dëgg waaye ñun ñëpp dañuy décrier euh, communication bi mais déggoo ma ne li dugg ci information ci coronavirus bi ci ci bopp bépp mbindeef buy dugg ci àdduna bi jaratul sax communication luñ la ci war a wax wax nañ la ko ku ci amul sa xarit am nga ci sa pap bu ci feebar wala seen lijaay bu ci génn àddina chaque semaine nga dégg ko benn moment am na benn jour maa ngi rappelé ne wax naa ko ma ne feebar bi ñi ciy gën a génn mooy ñi nga xam ne nekk nañ ci benn benn état d'esprit mooy que cette discipline individuelle booy jëlal sa bopp moom moo la ci génne am na fooy toll état du la tal président Macky Sall sax du la il faut quand après un an et demi que ñu xoolante ci ay bët ñu waxante dëgg ñun ñii ñëpp à chaque fois bu ñu yeewoo danga koy jël ci say xarit ci sa famille ci say collaborateur nga xool indiscipline bi kenn ku nekk di def nit ki dañ la naan maa ngi sol solu ñu masque quatre-vingt-dix pour cent masque yi ci menton bi mel ni ay bët dafa am fii parce que porté un sol masque da am boo ko solul ni nga ko war a solee ça ne sert hypocrisie la il faut que quand ñu xoolante suñu bët gis nga bu ñu naree wékk affaire yi ci ay état naan wéy communication bi baaxul fi ñu jëm du baax parce que foofu la toll le monde est malade gars yi ñu ngi ñun sax au moins am nañ tuuti soleil déggoo ma ne gars yaa ngi sedd liw tëju te ñun ñoom sax xaw nañu yor ñun yoruñu pour balaa ñuy mën a egg foofu li tax tekk tekkaaral bi peut-être qu'il y a beaucoup de choses que l'État ne maîtrise même mm-hmm. bu ñu tëjee dëkk bi du c'est pas possible nit ñi il faut ñu dem liggéeyi donc pour man kenn ku nekk ku nit jóge sa kër heure yi booy di manifester c'est pas du heure liggéey nan waxante dëgg. Mm-hmm. il faut que ñëpp def ay sacrifice c'est pas dañ la tere du heure liggéey ñiy manifester néew ñu leen doo liggéey fii. Mm-hmm. je suis pas d' accord vraiment suñu suñu suñu lune de miel bi waroon na durer ay ay ay ay ay un mois mais daf ko commencé yàq. non waxuma loolu de Samba Galaye Dieng non Samba Galaye Dieng dégg nga non non non non non non mais d' accord non waaw waaw vraiment yéen ñëpp aussi vous êtes vraiment méchant parce que sama yére bi dafa nice te kenn ci foofu laa doon dama naroon tegal maalu maal bi taara taara bi laa la naroon tegal ba mu jeex voilà waaw mais yeggali rek donc donc lu ma doon wax moom mooy que fi mu toll nii man ragal naa si wax loo xam ne sax ëllëg ma ne su ma yëgoon duma wax li parce que li ñu maîtriser bëriwul li ma xam ba xam ko mooy kenn ku ne ki sa biir kër su waay bu ñu nangu président Macky Sall di ñu communiquer suñu famille wala Abdoulaye jur saar wala wala Antoine Diome ñun ñii ñëpp on est genre gens responsables état d'esprit nit li mu def ci boppam ak ni mu mel ak discipline ak ni muy fonctionner moo ko mën a génne ci mbir mi ñu imposer ko suñu kër gu am papa am yaay war na mun a am benn autorité il faut que nit ñi aussi ñu jël seen ay responsabilité bu ñu toogee fii suñu état gars yi yor xaalis amul ci dëkk bi. moyen amu fi. mais ñaata ñaata yoon le président Macky Sall daan tukki si si si si si si mois bi wala keneen ak keneen ministre yi kañ la tukki. am na ñoo xam ne tukki <laughs> depuis des années dërëm xaalis amu fi cest à que il faut que ñu conscient de benn affaire mooy que benn moment état même bu la bëggee aider mënu ko parce que fi foofu la mbir mi toll te xaw na jaxasoo ci xelu nit yi jaxasoo boo xam ne il faut que nit ñi seen bopp ñu porteel seen bopp dara te loolu pour man foofu la ñun ñii ñëpp war a wax xoolante si bët te ñu waxante dëgg on est trop indiscipliné au Sénégal ça n'a rien à avec liggéey ni ngay ni ngay doxalee chaque jour rek war na ko war na mun a war na la mun a protéger ci lu bëri te doxewuñ ko buñ bu ñu waxantee dëgg donc je pense que benn moment il faut ñu mesurer fu état toll état bi ah fu mu nekk nii bu la nee diggee ne ne mun nañ la yokkal lal yu doy wala kii yu doy dañ lay nax nañ waxante dëgg nañ leen fagaru taxaw benn moment ñu ko ñu ne jëwu Sénégal mooy que les Sénégalais à un moment jóg nañu comprendre gravité affaire bi gis nga suñu ay prétention ak suñu liberté yooyu yëpp lu la ma daan waxee daaw wala ma koy waxee daaw jéeg je ne peux plus avoir ces prétentions parce que fi mu toll la sacrifice yi mu laaj ñun ñëpp il faut ñu def ko quelque soit budget bi nga yore lekk ba suur ndambe nga daan lekk ba suur mais boo lekkee shawarma doo dee xam nga lekkal shawarma wala hamburger mais boo buggee na nga daan nelawee nga nelawee ko na nga daan tëddee nga tëddee ko am na ñoo xam ne ñoo ñu ëpp ay moyens dëggantaan et les gens qui à l'étranger son très très fatigués dañu sonn trop da leen di xalaat nga xalaat ni au moins yow journée bi di nga xëy suba ba vingt heures effectivement affaire bi brusque na <coughs> ni ñu ko defee gars yi metti na am na ay incident am na ay yëpp mais il faut ñu comprendre benn affaire mooy que tey jii nii man munuma jox confiance kenn ku dul ministère de la santé docteur euh, professeur Seydi ak président Macky Sall parce que li ñu maîtriser maîtriser wu ma on est tous ñun ñi dañuy kii nii rek mais xamuñu exactement fan la ñu jëm te ah, boo xamul fan nga jëm waxu tapet ngay wax waaw waaw mais non non non dafa nag mais bàyyi ma eggali waaw malal bàyyi ma li am solo pour tëj pour tëj li am solo mooy malal hmm. li may ñaax yow ak keneen ak keneen mooy que ñun ñii ñëpp ah bay ci sa ay oom ñun ñii ñëpp na ku ne bu wéetee ak sa xel ak sa conscience nga ne man li ma war a def maa ngi koy def est-ce que ñun ñëpp ku nekk li nga war a def yaa ngi koy def ana masque bi masque malal. ana sa bos mi ngi nii. Ah, non non non defal naa ana gel bi. sa bos animaux. non non defal naa ana gel bi ana masque bi non non non du loolu non xam nga lan tey jii defal naa non attends Papis Papis foofu laay daaneel mu xola xola ci biir poche masque la place su masque du ci biir poche merci léegi sax xuloo nañu sax ma jëlaat ci sujet bi ok non on peut mettre le masque dans la poche. Eh, bien sûr Abdourahmane am na lu ma xam de. Ah. bàyyi bu sedd ah, waay euh, euh, euh, alors tu me permets de répondre tuuti rek Pa Pape Djibril docteur Malick Diop mi ngi ñuy jàppale ci tontu yenn kii comme ministère wala yooyu officiellement nekkuñu fi. Mhm. CTE yi c'est passé de deux à cinquante deux ans pour les lii c'était euh, les centres de, de traitement ah, des épidémies. Ah, ah, voilà. Donc, euh, c'est passé de 2 à 52. Pour les lits, ah, désolé, euh, pour l'anonymat, <laughs> c'est raté. <laughs> yéex nga wax dans l'anonymat fonctionnel fonctionnel ou pas. parce que léegi la yéex nga wax dans l'anonymat docteur Diop alors euh, voilà. <laughs> pour les lits pour les lits je suis preneur. donnez-moi les lits. oui Yérim. pour que je passe à Papis. bëgg naa trop sa Mm. Euh, gis naa ni sa sa am solo mm. mais tey moom tey rek nga mos a wax loo xam ne bi mm. nga commencé ba bi nga daanalee d'accord baag yow ah, parce que gravité situation bi moo tax am na yoo xam ni du fo xam nga gel ay caga ay ndog ay nuit blanche yëpp bala nga koy tal nekk fi dañ ni bala nga naan naam ne fi xale yi di manifester ñoom dara mën na leen bañ a dal ndax ay xale lañ peut-être hmm. mais ñoom bu ñu attrapé virus bi seen yaay yi Sénégal maire yëpp am tension man bi ko bi bi bi commencé ba léegi benn obsession laa am mooy sama yaay. yaa man ak parce que maire dafa am diabète. Hmm. nekk ci benn kër boo xam ne ay xale dañ faa nekk. Hmm. mujj jël ay dispositions pour ceinturer kër gi. parce que loolu aussi c'est ça le problème. yow da ngay nekk xale yow tu t'en fous. di génn di taxawaalu di truc. jël maladie bi yóbbul ko sa yaay wala sa papa sa papa am na tension wala sa yaay am na diabète musiba dal ko. Mhm. il faut il faut le dire maanaam sëñ bi yëf yi du fo du ree. affaire non defal ndànk defal maanaam la situation est extrêmement grave cest dire adduna bi amul benn adduna xoolal tey ima yow mënoon nga imaginer final coupe Ligue des champions ñu koy football kenn nekkul ci stade événement sportif bi nga xam li muy drainer ci ci. ci ci ci ci ci koppar kenn xamul toll mën nga comment comprendre Air France toog lu mat cinq cent avions cloués au sol dem ba am problème entretien nag avions yi mënuñoo daw mais affaire non affaire du kaf du ree non il faut que les gens sachent que affaire du kaf du ree ba pare amul benn état je dire loolu laa daakaar ak li bu bu ba wax parce que li mu wax c'est très profond amul benn état bu mën a faj Covid 19 amul amul li mën a faj Covid 19 comportement la buy jógee ci nit ñi amul leneen comportement boobu amul état bi il obligé jël ay mesures pour imposer nit ñi comportement boobu c'est aussi ça parce que responsabilité état mooy loolu kaaraange nit ñi sécurité nit ñi jàmm nit ñi santé nit ñi looloo tax ñu créer état bu du woon loolu état du am bu fekkoon ni kum neex def lu la neex kon état du am donc langage bi ñu war a tenir sénégalais yi tey mooy lan feebar bi ni mu meloon melatu ko feebar bi dafa gën a garaaw ni mu meloon bi muy gën a garaaw ni meloon fekk na li état bi mënoon mënatu ko fekk na àdduna bi gën a yooy fekk na it capacité bi ñu amoon pour faj nit ñi maanaam lal yi ñuy tëdd ak li leen di fajeek yooyu wàññeeku c'est normal parce que épidémie bi lu mu gën a ngand lal yi di gën a raar personnel médical bi di gën a sonn donc loolu lañu war a wax nit ñi léegi nag bala ngay ne parce que li gën a essentiel pour man droit bi gën a am solo ci àdduna mooy nga dund mooy nga dund d'abord parce que bala nga naam naam ne fa Sénégal nag bu ñu bëggee réew mii parce que Covid 19 du caaxaan te day rey. day rey c'est une maladie qui donc nañu nañu nañu vraiment pour man il faut être ferme sur ce point là. nañu sensibiliser nit ñi nit jéem a def effort. dimbali nguur gi parce que hmm. réew yu nekk. population bi ñoom mais ay Suède. Mm. Suède Suède. Mm. xam nga c'est des c'est des pays très citoyens. Mm-hmm. ñoom dañu xëyoon suba ni non ñoom wóolu nañ nit ñi et cetera mais Suède nañ lañ mujjee tëj réew ma. Mm. pourtant Suède en termes de comportement. citoyen dañ naan ñoom ni ñu mel. ils sont classement yëpp ci àdduna bi dañ naan ni ñu mel kenn ko oui ils sont exemplaires. waaw ah, loolu foofu allez Pape euh, cinquante 56 lits de réanimation en plus. il y a 236 lits avec oxygène mm-hmm. yoo xam ni spécifiquement pour euh, Covid 19. Euh, non ce sont les 56 lits de mm-hmm. réanimation. mais mais der der moo wax léegi. bon c'est en vrai quand euh, pour ñu pour xam nga ñun. dañuy jàppale ci tontu c'est sérieux on est d'accord. Mm-hmm. la prise de conscience pour man. on est d'accord aussi sur ça. que nit ñi def nañ ci ay jéego yu mat sëkk. Mm. góorgóorlu nañ ci bopp. mais dama ne yu mel nii su amee. li dal ñeneen ñi dalu la. opportunité bi mooy nga profitoo ci. exactement parce que li dal feneen comme dalu fa woon. fii nee nañ ñu pic dina ñëw ak. Mhm. pic du ñëw ak xaar nañ pic. Mhm. premier pic deuxième pic troisième pic. ba mujj gi sax ñu ne ñu ñu ñu ku nekk di douter ci pic bi. est ce que du pic bi sax fii la woon tey est ce que du mesure yi nga xamante ni moom lañ jiitaloon tey lañ ko waroon a gën a densifier yooyu su amee. Mhm. pour man euh, kii ba nga yëkkati woon foofu. moom ngay lu ni toll ngay yëkkatiwaat fii par rapport à la gravité léegi problème mu interlocuteur effectivement docteur <laughs> Malick Diop mhm. c'est pas l'interlocuteur en fait c'est-à-dire que yu mel noonu su amee mhm. c'est le ministre de la santé moom moo ci war a communiquer par mhm. rapport à ça parce que li yëpp dafay tax nit ñi am en avoir le cœur net pour gën a mën a accompagner parce que seen alal lañ ci def leneen li mooy euh, euh, mais docteur ci la bokk mu mënuñu ko bàyyi. en attendant muy dellu si. may ma rek Papis Diaw. lan laa lay laaj waa li ma bëggoon dox li ma bëggoon wax mooy. par rapport ak docteur Thior. waaw xam nga boo nekkee docteur Thior. docteur Thior bi fi ñëwoon keroog ci déclic. Mhm. oui xam nga réew moo xamante ni dafa organiser wu comme suñu mhm. bos. Mhm. moom keroog il jette un pavé dans la mare. lu ci bari mu remettre ko en cause te ci su bëgg amul aucune communication officielle buy déconstruire li mu wax. mais loolu dafay indi jeexi jaaxa. wax ne immunité collective bi day am wax ne nanga wax avancer sur beaucoup de choses hmm. li ñu doon xaar aussi ci yu mel nii hmm. parce que nit ñi dafa am ñoo xamante ni ñoom lañ dénk di leen déglu hmm. donc yu mel noonu su amee ci saa si war nañu am benn réponse à la hauteur de l'attaque réaction pour confirmer wala infirmer li nga xamante ni loolu la wax alors Papis man lañ laa am envie wax la ñu bëri li ñuy wax comme couvre-feu beeg euh, yeneen yi ñuy wax pertinence bi ñu bëri nee nañ vingt et xanaa virus bi day dem nelaw yi virus boo xam ni noctambule la moo tax ñu koy moytu guddi gi wala est-ce que je reviens à la première question et la principale pertinence su couvre-feu ak téye nit ñi ci kër yi. damay damay ñëwaat si sama benn axe boo xam ne moo nekk sama support pour dem dans l'analyse. Mhm. cest à moi je fais partie des gens qui ont choisi en tout cas xaw ma mhm. dinañ ko am ou pas. Mhm. qui ont choisi de vivre. et vivre à un prix. vivre on s'investit pour vivre. da ngay nooy boo fa des nooy da ngay hmm. quand tu arrêtes de respirer toi-même tu meurs. oui ça veut dire que pour vivre il faut s'investir pour vivre muy benn. Hmm. Euh, en sorte que tous les efforts qui seront faits. Oui. dans le sens. d'atténuer man man personnellement je suis preneur. Oui. affaire mooy nit benn métier nga mën la am wala nga am polyvalence xaw a laal tuuti leneen. cette décision là elle n'a pas été prise par Yérim ni par Bouba. ce sont des spécialistes de la médecine qui ont pris sur eux mhm. la responsabilité d'engager le chef de l'État oui. dans cette direction. Il faut que nit ñi ñu ñëwaat à des proportions beaucoup plus rationnelles mhm. et, et respectables. Mmh. J'ai vu dans les télés ay nit ay nit ba doon waxee ñu naan et euh, comme ça quoi de façon très arrogante mais moi je trouve ça très arrogant nga wax waay euh, ki lay interroger yow est-ce que am gis nga ko am Covid joué ko ci mais ça c'est une catastrophe. oui mais c'est une catastrophe. Jambar le le le fond du problème il est là. Mm-hmm. benn boo boo ñëwaatee si euh, là je suis très d'accord avec avec euh, Bouba affaire bi question de responsabilité personnelle la personnelle d'abord avant état sans que brosse nañ ko même quand on parlait de la solidarité waa état am na yoo xam du affaire de état ay religion du affaire décision personnelle individuelle yow yaa koy jël yow sa bopp ba pare. nga doog a lijjanti leneen lu si lu si ñëw. oui mais ah. mais Papis Papis je suis désolé. ouais dans la dans la gestion de cette affaire. je ne parle pas de la non, gestion des non, faits on nous dit qu'il y a un État qui dirige dañ ñu ne dafa am ñoo xamante ne ñoo ñuy jiite ñoom la ñu dénk lenge yi pour ñuy naan ñu def leen lii ñu topp ci. Mhm. ces mêmes personne n'ont pas respecté les mesures ah barrières. ces mêmes personnes ont organisé des rassemblements. c'est même personne et cetera et cetera non. mais là où l'importance de la responsabilité individuelle c'est ça. Yérim léegi léegi dafa wax ni d'accordul ak man parce que tout simplement dafa ne c'est une affaire très très sérieuse c'est une affaire très très sérieuse qui n'est pas prise sérieusement par nos autorités. ok léegi laisse Papis continuer non non xam nga xam nga buñ ne buñ ne woy nit ñi balaa nga naan naam ne fa. Mhm. am na ki nga xamante ne naamam. naamam du virus bi naamam naamam li muy lekk la ak li muy naan parce que aujourd'hui non aujourd'hui tey boo ma tëjalee fi nga xamante ne moom lay foog man guddi rek laay jaay par exemple guddi laay jaay ndambe guddi laay jaay fonde guddi laay jaay nangam nit ñi dañ may rang parce que heure boobu la ñuy wàcc pour ma mën leen jaay nga tëj ma à 9 heures mënu ma leen jaay est-ce que am naa compensation man su boobaa xiifa may rey du virus ba may rey. xam nga tu tu fais non mais je veux dire. on n'est pas dans le même sillage malal il faut relativiser les les contraintes mhm. les contingences les obstacles qui sont liés à la pandémie. surtout liy xew ci bopp ko parle de ba pare ci bopp kañam ba lu fa foofu moi je parle de faits concrets. <laughs> en partant de l'arrogance quelqu'un qui remet en question mm. l'existence de cette maladie. devant un journaliste wala quel qui mais c'est une insulte. oui elle est la maladie. yow sa papa amu ko sa mbokk amu ko sa rak. d'accord elle est là mais y a des gens qui meurent toujours. elle est là déjà moo tax ma ne. moo tax ma da ngay dépasser foofu nga ñëw si la responsabilité. individuelle mal. oui parce que si tu ramènes sa à l'état incarné par le président Macky Sall président Macky Sall day masku ay doom dañuy masku. ñoom la recevoir recevoir les trouver noonu ils se protègent. te Aliou Sall amoon na il a ils sont pas ensemble. moi je parle il se protège. donc si te demande de te protéger nga bañ yow yaa ñàkk fayda parce que moom il se protège. oui man foofu laay waxee oui je suis d'accord foofu laay waxee benn affaire mooy l'histoire des enfants. moi j'ai eu le premier jour du euh, Covid bi. Hmm. moi j'étais sur le terrain à titre personnel ma taxaw di xool témoin oculaire. Hmm. moi j'ai vu des enfants qui ont moins de dix ans. Hmm. qui ne comprennent même pourquoi il court pourquoi ils ne le comprennent pas dix il peut pas expliquer les enjeux mm -hmm. d'un couvre-feu mm -hmm. où est la responsabilité des adultes des responsables mhm. c'est nous ah, ci wolof papis li nga wax am na solo trop wax ko ci mhm. wolof ñun ñooy ñun ñooy respon bref mhm. <laughs> kon <laughs> papis moom te te xol bi yëngatu nga ci bëggoon yokk de dafa am benn rapidement ma dellu ci professeur waaw dafa am lu wax lu am solo il parle de responsabilité individuelle daf ci am deux dimensions xam nga état ni ko man a waxee sànq dafa am ay responsabilité générale hmm. yoo xam ne moom moo ñu war a yor xam nga quand man yow nga ne balaa nga naan naan ne fa moi je choisi de vivre mais ki nekk sama wet su dee moom il s'en fout ba war a mettre ma vie en danger c'est là où l'État doit intervenir. Mm -hmm. surtout quand sur un plateau de télé am ko taxaw jël responsabilité boobu c'est là aussi où l'État est important parce que gis nañ fi au départ ñi doon nekkoon dans le déni. gis nañ ne état jëflante woon ak ñoom pourquoi ñu bàyyi loolu. yaa ngi gis. sa nekk ci plateau wax loolu. mooy état allez état boo gisee muy jël mesure yi d'accordal nañ ko. parce que bu kii nee man sama yoon newu ci. Mhm. am na koo xam dañ ko war a protéger. Mhm. loolu tax loolu tax force de l'ordre yi di génn et tout mhm. ça. maintenant au lieu de parler de responsabilité individuelle parce que on connaît les Sénégalais buuba. on connaît les Sénégalais si seeni comportement ak seen mentalité. moi j'aurais dise la responsabilité communautaire. quand Covid bi njëkk na fi ñëw fan yële bi mu njëkkee ñëw mais on a vu que la communauté catholique il faut le souligner mm-hmm. et c'est très important a décidé strictement de respecter yenn charte yeeg yi ñu teg mm-hmm. pour euh, moytu ngir mucc ak muccam mm-hmm. parce que sañ-sañu teg sa bopp lor joxu la sañ-sañ teg sa sa morom lor mais il faut admettre aussi que d'autres communautés religieuses par exemple chez nous il faut l'admettre ils ont défié l'autorité et ont mis ma vie en danger ont mis la vie du Sénégalais en danger. moom moo indi problème débat bi ñu indi tey lan moo tax ñuy tëj fii di ubbi fii di ubbi fële yaa une moo tax ma ne euh, DER. Mhm. problème mu état bi xam nga lan la. Mhm. xam nañ problème bi feebar bi mi ngi fi il faut ñu ñu respecter ay principes. comment pousser comment faire de telle sorte au-delà de l'aspect amuñu xaalis mënuñu fay ñii mënuñu nan la ñuy def ba nit ñi respecter li li li autorité bi def pour ñu. mën a sàmm seen i bakkan ah, kii nee na xaar ma yeggali bu ba xaar rek ma yeggali kii nee na sànq am na ko wax sànq ne que euh, ñii dañu war a takk masque yooyu noonu mais man damay wax feneen dama ne ci njëlbeen faussé na duñ fi nekk di chaque jour naan faussé na faussé na mais dama bëgg état bi ñeme woote wàllu ERA hmm. dafa war a ñeme woote wàllu xam ne sës na jaaxle na si le problème est très sérieux mooy en faisant quoi woote ah, wàllu xaaral ma yeggali xaaral hmm. malal nee na sànq un ministre bu takkul masque dafay inciter à ce ñu banaliser la chose. loolu image boobu baaxul. mais beneen bi mooy dama ne état bi am na ñoo xam ne bu waxee ak ñoom ñooñu duñ ko dégg. xëy na tey benn kilifa wala benn élite bu waxee ak ñoom dinañ ko dégg xaaral bu ma ma yeggali. je waaw man je bu leen neexee mais bàyyi leen ma yeggali dama ne. même man même man depuis neuf mois on en parle. il ne pas qu'il y a ce danger. Abdourahmane may leen ko may leen ko wax bu leen ko c'est de la redondance finalement. dama ni dama ni si le problème est si sérieux que cela. mais Abdourahmane Abdourahmane non non non non non non non non non non dama ne si le problème bu dee sérieux ba ngeen xëy def état d'urgence mm. di di tënk nit ñi ñii ñu leen di xañ seen i wërsëg c'est un mm. problème sérieux mm. ngeen jël mille milliards def ci dem lebati cent milliards tey ne amu leen xaalis gis nga bu dee sérieux na xam nga euh, euh, loolu ñuy wax ne que jaratul ay ngand ngand loog di réy réylu da ngay xam say limite buuba réew mi am na ay réalité Touba am na kilifa Tiwaawoon am na damay yeggali sama xalaat la. Oh, waaw parce que dama gis ne état bi day bloqué am na nit ñoo xam ne mënul wax ak ñoom ni nga waxee ne les parents ont le responsable nous on accepte ces qui sortent là ani seen i waajur. c' de l' indiscipline. de l' irresponsabilité mais y' a d' yoo xamante ni. Mm. xëy na seen résistance. moom moo favoriser problème bi te kenn waxu ko. Mm. léegi bu dee état. comme comme ban communauté. Mm. non communauté gis nañu fii fii ñu ne julli la am Kaolack julli. am na fi c'est la réalité. mais si on peine parler directement à ces personnes là. parce que ñoom xëy na gëmuñu ko wala dafa am yenn liberté yu ñu am ñu dem si borom kër yi. Mm. parce que état cag na. tu cest pas personnel. je dis public parce li mu wax li gi nguur gi kon na wax na wax ak ñi nga xam ni. Sénégalais yi dañ leen di déglu damay rebondir si hmm. xam nga mais attends attends attends attends bakkan ah, du kilifa moo ko c'est individuel c'est personnel bakkan gère bakkan y a pas kilifa y a pas président les gens qui sont allés prier qui ont décidé sur eux-mêmes. Ah. prendre la responsable d'aller prier. kenn ñëwul jàppale nii yóbbu leen ñoom ñoo yóbbu seen bopp. Euh, c'est la vérité moo tax ma ne la notion de responsabilité personnelle mënuloo ko ci dindi. mais mais mais lii du sëriñ président ok tu dis c'est mhm. ci vraiment suufeel sam bopp. Mhm. wax fa dëgg yàlla mun naa revendiquer personnellement que. j'ai joué le jeu j'ai pris mes responsabilités. Mhm. rek. xaaruma ci sam pap non non non attends ma explique non malheureusement. am na ñu ko deful non non attends ma eggali naa déglu te bul ko la dag nga ne kii bàyyi ma eggali dama ne la man <coughs> télé laa nekk. Mhm. ñi may samay collaborateurs ñi mhm. may gis. la seule fois où on m'a vu sans masque c'est maintenant bu may wax ni non seulement man mais fi ma jiite ñi ngi may dégg ñiy liggéey ci télé bi bu ma nee bëreet ah, ku ma gis nga sotul max da ngay génn foofu. Mhm. soo ko defee benn yoon doo ko def. ni sama kër ni keneen. parce que xam nga lu tax Pierre Da Silva nee na dëgg la xam nga lu tax. <laughs> xam nga lu tax say doom ñi ngi sol masque. non attends dégg masque waaw say doom ñi ngi koy sol. mais bu baax. say waa kër ñi ngi koy sol kan moo leen koy sol. non non mais mais attends ma expliquer la. yow yaa leen koy sol Abdourahmane Abdourahmane non bi ngay wax dama kii nga ne ma. dama la laaj non sa xalaat nga wax ba pare bàyyi ma ma egg. ah dama loolu laaj waaw non munoo ma dagg te boo ma la daggee nga mer. non meru ma waaw mais non danga ma ne bu ma la dagg ma bàyyi la ba ma wax ba pare bàyyi ma eggali dama ne la ñun ñii ñëpp man óor na ma ni bu amoon ñëpp meloon ni Bouba Ndour je le revendique parce que ça fait neuf mois que maa ngi fexe lépp loo xam ne sama conscience du ma may dara dara ma inculqué ko ñi may liggéeyal ak ñi ma jege su ñëpp demee woon noonu te loolu dégguma ko si papa dégguma ko ci sëriñ dégguma ci kenn dama ne sama bopp que ni lii su ma ko defee dinaa def dara nit na ma looy def nii ma ne ko damay communiqué c'est pour donner le bon exemple tout simplement parce que dama ne sama waar bi man personnellement dama koy bay damay dox ci biti sax nit di ma ni si yow gis naa ko ragal corona ba tey te du tal ni yow parce que tout simple c'est pas parce que dama ragal mais dama ne su ma ko defee peut-être que dina dina inspiré yeneen nit te loolu moom la ñuy dund au jour la jour ci suñu liggéeyukaay suñu béréb bi kër yi ak suñu xarit da ngay gis nit buur kilifa nga woo ko ngay wax ak moom mu ne la xola mu ne la ah, waaye man lii du ma dal ay nit ñoo xam ne ay porteurs de voix lañ te sëriñ bi mënul ku ne mu dem sa kër naan la saa waay del sol masque affaire bi dégg man la lañ ca waroon a xam yëpp xam nañ ko lenn la ñu war a mën a def. muy que inciter les gens ñun ñii ñëpp. kenn ku nekk environnement bi nga xam ne dañu nekk ci réew kilifa. kilifa bi moom mooy que boroom kër gi kilifa la. directeur bi kilifa la ñi nga jiite nga fexe ba. ñu ñu li nga li nga espace su liggéeykaay nga def non mais loolu loolu bu ko ñëpp defoon ah et ça n'a absolument rien à voir avec l'État. et Pape Djibril Fall Pape Djibril Pape Djibril s'il baa ma tuuti buuba xam nga ne nga liñ ciy wax ci info yëpp nit ñi xam nañ ko loolu dëgg la mais dafa am lu xew li xew mooy dafa am lu rompre dafa am loo xamante ne moo dañ ci kóolute ci diggante ñi nga xamante ne ñoo nekk ci diggante feebar bi ak askan non si il y a il y a pourquoi tu cherches la petite je ne cherche pas la petite bête je ne cherche pas la petite bête kii wax na ko fi léegi léegi nit ñi dañu àndandoo dem palais xalif bi taxaw wax contribuer les sociétés contribuer ceeb génn on montre notre président mu fotowu ci ay soixante saaku ceeb ay ay toni toni saaku ceeb Comme si aujourd'hui, la priorité est sur la distribution Mais... du riz. Alors qu'en fait, l'accent devrait être mis à tout bout de champ sûr. mais loolu wax nañ ko fi ay mira ay yoon yoon. mais d'accord mais loolu moo ñu rattrapé. ñun ñii ñëpp mais non non du jamono la moo ñu rattrapé action la. du jamono moo ñu rattrapé. c'est-à-dire que après mën li xewoon il y mois. cas communautaire. responsabilité bi c'est maintenant. ñoo koy réglé. après ñu koy nii c'est les communautés ñoo koy réglé c'est-à-dire. association Kajinjasa association Balole ah association Ñële c'est c'est la communauté qui est mais si la communauté est dans le dispositif de lutte contre du sori ok Pape Djibril alors man li ma bëgg wax rek mooy Pape Djibril Pape Djibril ñu déglu Pape Djibril waaw li li ma bëgg a wax rek mooy que ne euh, Covid bi bi mu commencé professeur bul yaakamti dinañ ñëw léegi ci yow Covid bi bi mu commencé <laughs> gisuma ku sensibiliser wul d'une façon ou d'une autre malal mi yónnee na ma ay nit tourné ay sport man mi jël naa sama responsabilité def loolu la ñëpp def ñëpp def nañ ñii raxasu nañ ñii takk nañ masque ñii wax nañu ak ñi ñu mën a waxal ñii way nañu ñii def nañ lépp li waa ji doon wax nee na ñoom ñoo doon way virus bi léegi virus bi leen di tere way <laughs> donc même ñooñu gis nga <laughs> engagement bi ñu def te tey jii virus bi mu ngi leen téye te pour man nit dina toll foo xamante ni mais reprends cette phrase là nekk ak sa problème c'est malal bàyyi may gën doon woy <laughs> virus bi malal bàyyi bu may gën léegi léegi li léegi léegi léegi mag dina toll foo xamante ni pour man Sénégal ñëpp toll foofu euh, yërëm ko moo gën yedd ko mhm. il faut que ñu xam nan la ñuy waxee ak nit ñi kenn bëggul la gën a dund kenn par rapport ak communauté yi Abdourahmane doon wax fii may wax ak yow nii si on pale de Touba bien sûr <laughs> muy Touba muy Tivaouane muy Niassène muy euh, muy muy communauté religieuse yëpp y compris le clergé amul jamono bu nekk lu dul li gën a métti dal na leen mooy ñu bàyyi li nga xamante ni moom moo doon seen quotidien tëj nañ jàkka yi effectivement tëj nañ ko fépp bàyyi nañ ay manifestation yu mag def nañ ko fépp mm. mais bi ñu demee ba nga xamante ni le président de la république lui-même moo génn à la télévision ne il faut apprendre à vivre en présence du virus et qu'il y avait l'urgence économique qui était là ba nga xamante tey ji par exemple boo jëlee le Magal de Touba mais nous le président lui-même s'est déplacé à Touba le ministre de la santé s'est déplacé à Touba je ne suis pas certain que défiance moo tax ñu bàyyi leen ñu def Magal je ne suis pas certain que défiance moo tax ñu bàyyi waat ñu tijji jàkka yi c' parce que tout simplement à un moment donné le président de la république moo ne apprenez à vivre en présence du virus et à partir de ce moment la responsabilité individuelle et collective des communautés était interpellée pour ñu joxe ay gage wane ne mën nañ dund ak moom moom ci boppam à son âge ñoom ñëpp tey jii boo leen jëlee les xalif généraux ay mag lañ man gisuma ci kenn ku toog te takkoo masque ils se font une violence énorme mm. te ñoom loolu dañuy digle fii may wax ak yow kenn mënul ziar la il a dit bu kenn ziar si. pour 15 jours au moins je pense fan yële fan yële dafa def une sortie barki démb xaw ma génn daal di joxe ay directives yu wóor par rapport au port de masque. Mhm. dem na ba nangu ñu jël image am def ko ci panneau publicitaire yi wane nañ takk masque. sëñ sëñ Babacar Sy Mansour la même chose le clergé la même chose donc chacun est en train de faire ce qu'il peut à son niveau mhm. gisuma nag. réew moo xamante ni la nga bëgg na nga ko bëggee la ko ñëpp di defee sunu borom sax li mu bëgg ci ñun mënu koo am ci ñun à 100 pour cent mm-hmm. donc am na ci yoo am na ci benn indulgence boo xamante ni avec une stratégie boo xamante ni moom lañ di war di waxee mais jàpp naa ni nit ñi ñoo ngi def seen te lay kattan ñun ñi ñëpp xëy na suñu borom wërsëgal nañu ñu am oto mm-hmm. mais bus daf lay romb ak li muy xat-xat dangay gis ne ñëpp a ngi góorgóorlu ku nekk ak sa masque da nga naan est su ma nekkoon ci condition yi sax nag pour man peaufinons la stratégie, renforçons la stratégie. déployons les leaders communautaires le maximum possible te li nga état aussi bu mu am complexe liy jóge ci kër diine yi comme message. ñu koy relayer avec la même solennité que le mm-hmm. président de la république. loolu aussi dañ koy bañ def. Mm-hmm. te parce que tout simplement sunu nature république bi moo tax dañu ci jëriñu. alors alors alors rek une petite contribution comme bëri mm-hmm. alors. Euh, s'il te plaît te plaît waaw may dooma may ma ni dooma may rek dooma may Abdourahmane dooma may waaw Abdourahmane may ma waaye je sais mais doo je reviendrai à toi je te donc euh, docteur Boubacar Signaté merci moom it il contribue je reçois beaucoup de contributions am na ñu bëri ñu ci euh, joxe ay input dommage du ñu mën wax ñëpp il pré bon moom il souligne que 52 CTE yi ñuy wax nee na affaire bi du foofu euh, parce que li gën a euh, li ëpp solo mooy saturation CTE yooyu la war a wax bu demee ba dootuñu am lal yu ñu jox malade yi foofu euh, nee na tamit du ñu mën comprendre no notion wu lii de réanimation su dee amuñu réanimateur yu doy infirmier yu doy ci réanimation bien sûr ak logistique bi nga xam ni yëpp ku feebar soxla réanimation moom moo war ci moom donc ay ay ay contribution la yoo xam ni professeur boo dégloo débat bi animé na ak <laughs> ak yëpp mais li ñuy wax finalement ban njëriñ nga ñu ci mën a génneel jukki ñu tënk ko nga xam ne ñi déglu di yaay kilifa yi <coughs> dinañ ci mën jëriñu ci tënk ci responsabilité ci communication ci nguur gi ci waa kër docteur bëri na luñ ci luñ fi wax lan lañ ci mën a tënk ci njëriñ rek euh, jébbal leen ko mu mu mu jëriñ askan wi. merci beaucoup damay tàmbali di wax ni d'abord que ministère de la santé kam il faut reconnaître que liggéey nañu mm-hmm. parce que na ngeen fàttaliku ni ñoom jotoon nañ fi félicité suñu professionnels yi mes collègues ndax liggéey bu rafet bi ñu defoon c'est vrai que dans les ci yeneen dëkk yi mm-hmm. virus moom épidémie day yéeg di wàcc di mm-hmm. yéeg di wàcc ba dem benn pic mais comme ils ont dit beneen vague bu ñëwee peut-être le virus a eu un autre mm. comportement yi dégg naa leen ngeen naan bi dafa gën a virulent voilà et cetera comme on, on utilise le terme maintenant loolu bu ñëwee responsabilité président moom du xool ndax kii sonn na comme malal ni muy wax naan lekk ñu non moom mooy autorité bi dafay ñëw jël benn décision parce que mm. président du xool Massamba day jël décision bi nga xam ne mm-hmm. moo arrangé toute la population mais bu koy jël tam du jëm tëb noonu dafay am ay spécialiste hmm. day toog ñu xelal ko parce que bu ngeen dégloo conseil présidentiel ba juróomi waxtu toog nañ fa di wax donc tëbul noonu rek moom jël décision hmm. te waxoon naa ko léegi bi ma papi bi ma kii euh, DER posé question bi ci hmm. jalbeen bi lan mooy maanaam jeexitalu euh, couvre-feu bi li ngeen fi wax yëpp parce responsabilité individuelle dafa ci am solo. parce que comme lii man ci sa kër fa nga ne say doom yow ci sa bopp yaay joxe bon exemple. parce que individuellement bu ñëpp defee loolu bu yàggee en fait on va avoir un résultat. beneen bi ci tegu. mooy comme ni ngeen wax yeneen acteur yi nga war a dañu war a ñëw ñoom it lañ ko loo fekk ci affaire bi les leaders religieux. dañu am solo ñu ngi wax effectivement. Mm-hmm. mais warul tere ñële tamit au ministère li ñu doon def ñu continuer di ko def. waaw parce que ministère quand même quoi qu'on dise sur le plan scientifique ñoom ñoo yore xam-xam bi di xool projection yi mais dafa am foo xam ne bu mu fa tolloo côté scientifique bi dañuy dañ ciy dolli yeneen mooy li mhm. ngeen doon wax noonu mhm. il faut ñu dem aussi au niveau de la communauté les relais communautaires existent donc il faudrait que ñu yokk d'abord pour résumer le président li mu def lu am solo la loolu moom kenn mënu ci dellu ginnaaw parce que dina tax ñu wax mu xooq tiital nit ñi ba tax li ñu doon def ñu ñu ñu ñu ne nañ bàyyi bu ñu bëggee moom mu bàyyi ñun aussi. dañu mhm. dem fekki ko. mais pour loolu gën a am solo il faut que ñu nekk ci base bi ñoom it bokk ci ku ne yow sa koñ fa nga ne jaaykatu moom bu bëggee continuer jaay dina wax ñamu dana leen dimbaleen ñu ngeen takk masque yooyu. donc li ñu wax rek ça tourne autour de la responsabilité. Mhm. Mhm. individuelle ku ne ci sa bopp. nga jël mbir mi def ko comme sa mbir bañ a wax ne rek yëfu président Macky Sall non c' le président de tous les nous même à notre c' est suñu respecté wul mesures yi. mais dañuy àndil dëkk bi dugal ko ci ay. yoo xam ne du ñu xam fu mu jëm man man man. et peut-être répéter ni mu waxee que l'heure grave mais yokk si qu'on en guerre xam nga waxoon na ko jamono jooju mais dégguma bi yoon mu waxaat ko. et comme situation de guerre la malal je pense que c'est c'est les mêmes comportements de temps de guerre. contre mais tant que virus bi doomu jàngoro bi mu ngi si bon ñu bàyyi tant que doomu jàngoro bi mu ngi si non non non non non c'est qu'il a une précision à faire je comprends il a une préoccupation mais Abdourahmane s'il te plaît en une minute ñu jàll ñu jàll si j'ai compris euh, li ma doon wax sànq je ne voudrais pas que ça soit mal perçu ñun dañu créer révocable boo leen fàttalikoo seen première émission bi ngeen def ci ci covid bi fii laa toogoon lu dëgg ñun leen teel leen wax ni que nañ moytu cas communautaire yi parce que bu ñuy def ñuy jéggi dayoo. Mm-hmm. ñun dañoo dem Touba Revocat dafa dem Touba ci màggal bi teg ay dispositifs honorable député Marème Soda ak ñoom Abou Diallo tous ces jeunes la on a contre rien contre la religion on a dit qu'il y a des poches de résistance au niveau des communautés sëriñ si wax nañ ñi ngi wax d'accord mais ndax taalibe ñi ngi jëfee. Mm-hmm. ndax bu président de la république waxee. ni ñu koy déggee noonu la ko taalibe yi di déggee man loolu laa posé comme problématique waxuma sëriñ si wax ñi ngi tàkk masque. Mm. ñi ngi wax message mais nous sommes nous sommes en face d'une problématique boo xam ne c'est communautaire. Mm-hmm. Mm-hmm. ci bu njëlbeen la ñu waxoon ne que communauté yi buñ leen organiser dinañ mën a organiser la riposte. Mm-hmm. yaa may dégg mais il faut admettre une réalité que ni ñoom xëy na duñ leen ci impliqué wul ni mu waree. parce que y' a certaines communications qui portent. ak solennalité bi muy àndal bu xalif bi di def des fois taalib yi dañ koy dégg dañ koy jëfe moo xam Touba la moo xam église la moo xam Tiwaan la moo tax ma ne état bi bu dee lii sérieux na waruñu jomb lenn. ci loo xam ne daf leen di dooleel. boo demee def couvre-feu lépp seen i ay milliards boo waree dem sëñ seen sëñ bi gën a waxtaan ak taalibe yi pour gars yi takk masque daf ko war a def. Mm-hmm. foofu laay waxee par rapport aux communautés religieuses mm-hmm. beneen bi mooy je persiste à dire que li ngeen wax dëgg la mais bu ñuy nekk diw yaay surveiller parce que ñiy jàpp ne am na ñoo xam ne du ñu respecter principe yi gis nga euh, buuba li tax sànq ma la doon teg di la laaj ma ne la yow say doom say waa kër yow yaa leen di joxe ay consignes takk leen masque bu leen dem bu leen def lii en tant que chef de famille mm-hmm. du dëgg mais amaana boo leen bàyyi ak seen sago surveiller woo leen organiser leen duñ ko def buuba responsabilité individuelle boobu ngay wax des fois comme que nit ñi manqué nañ ko. ba takkuñu seen masque. ba lu leen ba faalewuñu seen i dund ba ba ne bëgg teg nit ñi nit ñi lor il faut ñu changer démarche parce que nit ñi ñoo libre fii Sénégal boo leen seetloo nit ñi di doxee dans la rue publique boo wàccee ci tali bi ña fay lal. fa nga war a jaay jaar ñu fay sotti ndox mais les gens vivent comme ils veulent vivre dans pays donc quand on parle de responsabilité individuelle c'est qu'on ne connaît pas bien les Sénégalais deux minutes je dois revenir au professeur dama am lu ma bëgg a wax dimbale uh-huh. ko pour jeunesse mm-hmm. bari dañu jàpp ni coronavirus du problème bu fekkee ni tu es loolu aussi boroom xam-xam yi waxuñu loolu mm-hmm. parce que feebar bi mu bañ laa dal mm-hmm. ak mu dal la nga wër bokkuñu parce que feebar bi jeexital yi muy def ci nit moo garaaw tey France ñi fa wéroon ñëpp ñu ci bari développé nañ yeneen maladie ñu ci bari maladie ni amoon gënoon naa grave ñu ci bari seeni poumon seeni faar yàqu na yaa ngi dégg ñu ci bari seeni problème mosu ñoo am problème respiratoire problème mu nooy léegi am nañ problème mu nooy il faut ñu xam ni euh, parce que loolu aussi seen une idée reçue quoi da nga naan non kii jeune boo nekkee jeune feebar bi dañ lay faj nga wér déedéet il faut jeune Sénégal yëpp xam ni hmm. jeune bu mu dal ak jeune bu mu dal bokkuñu hmm. parce que jeune bu mu dal dana bàyyi ceew jeexital yoo xam ni hmm. boo dundee tuuti tuuti di nga xam ni lii bañoon laa dal moo ko gën maanaam wér bi boo déggee ñëw la wér nga sëy na bu ñu la testé waatee coronavirus du nekk sa yaram waaye jeexital yi muy bàyyi sa yaram lu garaaw garaawa garaaw garaaw la loolu aussi faaw ñu wax ko nit ñi. Mhm. ñii di génn di manifester di toj ak yooyu. il faut ñu xam ni feebar bi même bu leen mënul a rey mën na yàq seen yaram. Mhm. wala mu yàq seen yaram loo xam ne nii bu ñu n'est-ce pas docteur. Mhm. voilà wala mu yàq seen yaram loo xam ne nii bu ñu dundee tuuti ba ci kanam tuuti nañ xam ne nii mu banal leen dal moo gën. alors docteur finalement la solution est-ce que du vaccin bi. et même solution boobu bu dee moom la it ça pose problème am na ñoo xam ni gëmuñu ko wala nee nañ gaaw na trop. ba ñu fi gis vaccin ah ci diggante bi te yow macha allah sa xam-xam màcc na lool ci euh, wàll woowu am na campagne ak vaccin yoo xam ne bu ñu fi duggee ba ñu defal ko xale yi ñu mucc ci yenn yi yàlla ak yow a tax bismillah ndax finalement du looloy solution. bon merci je voudrais naa def benn précision. bu mhm. bu ndaw pour wan man dema fi ñëw. Mhm. Euh, ngir sama peut-être xam-xam bu ma am ci affaire ñàkk bi. Mhm. mais ñëw mu pour kupolu nii université nii pour. ministère de la santé. def naa au moins ci affaire vaccin lu mat fukki ak direction de la pharmacie. boobu maa ngi doon euh, jàppale Institut Pasteur vaccin a nga ñun fii àdduna bi yëpp vaccin fièvre jaune ñetti dëkk moo fi am fii la. Brésil la woon ak France Aventis Pasteur ma nekkoon ci di topp vaccin bi ba jóge fa dugg OMS def fa pendant ans mais bi ma demee jàng vaccin ni ñu koy fabriquer pendant dix ans damaa jógee direction ma dem programme élargi de vaccination Mamadou Ndiaye liggéey naa ak moom cinq ans docteur El Hadj Mamadou mhm. PV waaw waaw on était à la direction de liggéey nañ juróomi at ma jël vaccin bi ñu doon defar ma xool nu nu koy jëfandikoo ci dëkk bi pendant cinq ans doon gérer tous les vaccins du Sénégal la chaîne de froid et les stocks pour xam vraiment vaccin ma jóge fa dem direction des marchés jàng passation publique pour xool l'achat du vaccin parce que dañ ko daan jëndi Copenhague UNICEF di ko andil ma bëgg a cerner le vaccin donc yooyu yëpp ma def ko ci vaccin c'était pour xam lan mooy vaccin mm-hmm. ba pare nag dem OMS di ko def loolu ci dëkk yi réglementation des vaccins et produits biologiques pendant dix ans Afrique de l'Est de l'Ouest du centre Asie ba Inde donc loolu mooy euh, kii bi pour ñëw ci vaccin maintenant vaccin dafa doon loo xam ne dafa garab la waaye dañ koy différencier toujours ak garab beneen bi mm-hmm. xam nga nit ki boo ko joxee paracétamol bopp bi day métti mu naan ko méttitu boppam daal di tas. xam nga donc lu mu ci am bu amoon sax après ay xasan ak yooyu comme moom soulagé na maanaam. boppam buy métti danaan garab bi amul problème. mais vac ñàkk ki ñu koy jox dañ koy jox koo xam ne dara jotu ko ñàkk ki nga koy jox da nga koy jox koo xam ne dara jotu ko léegi boo jëlee sa doom nga jox ko benn ñàkk yaram bi tàng lu ñuy wax day naan ñàkk bi la. Mhm. foo gis 3000 références juróom benn téeméeri ñetti téeméeri référence ci ay. médicament boo demee ci vaccin ñu ngi ci ay trois trente wala quarante donc parce que defar bi moo moo jafe. Mhm. donc pour defar vaccin il faut d'abord li am solo recherche de base mooy maanaam dinañu xool jàngoor ji maanaam li muy peese xam nga tey Covid moom tool waxatuñ sax lu muy peese bu ñu paree si loolu ñu xool ni ko nit ñi gisee. Mhm. jàngoro bi ba pare nag borom xam-xam yi door a xool nag nañ lañ mën a def ba defar benn ñàkk. ci loolu bi mu amee Covid bi bi ñu nattee loolu yëpp ba pare ci lañ ne léegi dañu war a defar benn vaccin mais dañ gis vaccin yu ñu daan defar comme ay vaccin rougeole ak fièvre jaune ñu ngi ko daan defar ci ay culture cellulaire dañ daan jël ay nen daal di leen boo boofu ba muy xaw a kii ñu ñu am cellule yuñ ci piqûre daal di ko culture bay ko maanaam façon xeetu noonu lañ koy waxee daal di ko produire daal di jël dangaru maanaam virus bi wàññi ko après def ci vaccin wala ñu jël virus bi daal di ko maanaam atténuer rey ko defar ci ñàkk mais bii ñàkk bii dafa li tax mu mu am coow yu bari dafa doon beneen type de vaccin bokkul ak yooyu. mooy ARN. ARN messager. waaw waaw xam nga ARN moom boo koy wax rek da ngay dugg ci xam nga nit moom ay cellules ñoo ko. formé mais cellules yooyu dafa am benn lu ñuy wax noyau boo xam ne day yem ADN. Mm-hmm. mooy gène mu nit léegi foofu mooy li nit mooy li mooñ mooy ADN voilà ah. bu ñuy mais ARN messager dañuy dem mm-hmm. loolu généticiens yi ñoom ñoo dama du ma ci dama ciy wax rek li ma ci li ma ci xam noonu mais bu ñu invité woon des généticiens il serait wax leen mutation bi ni muy ni muy demee day copier daal moom benn information ci ADN bi léegi parce que ARN yooyu dafa am yoo xam ne dañuy transporter am yoo xam ne dañuy dajale protéines yi te vaccin moom ñàkk moom ab protéine rek la léegi nag bu demee copier photo maanaam matériel génétique matériel virus bi daf koy andi après léegi nag yóbbu ko ci protéine bi moo tax ñàkk boobu xam nga bu njëkk dañ la doon ñàkk nii après nga développé ay anticorps mm-hmm. mais bii dañ lay dugalal ARN bi moo mm-hmm. gaaw dafa gaaw parce que dañ koy synthèse bokkul ak développement yi def nii mm-hmm. pendant dix quinze ans bii moom da ngay dem si laboratoire nga def synthèse ARN bi léegi nag ñu daal di ko dugal bu ñu la ko ñàkkee moom day nekk benn antigène ci sa biir yaram su duggee rek day mel ni comme jàngoro Covid bi lay nekk mais su duggee si yaram bi rek automatiquement dañuy defe na ñoom si sa biir yaram day am an dañuy développer ay anticorps contre antigène boobu nga dugal. Mhm. parce que du xamuñu ko dañuy defe ne jàngoro bi la. daal léegi nag bés bu jàngoro bi ñëwee ci sa yaram. ñu xàmmee ko ñu xàmmee ko. Mhm. loolu mooy principe bu vaccin. Ah, euh, dañ koy injecté daal moom mu produire ay benn antigène antigène boobu taxaw. léegi yeneen comme xamuñu ko ñu ñëw attaqué ko mais antigène day niroo comme maanaam doomu jàngoro bi mhm. léegi bu ñu ko dugalee sa yaram mhm. léegi yeneen dañ koy an dañuy ñëw rek di développé ay anticorps mhm. anticorps yooyu ngay développé nag léegi bés bu jàngoro bi ñëwee rek moom après voilà moo tax fabrication taxul compliqué noonu mais benn problème rek la am dafa xaw a fragile moo tax ni ñu koy conserver boo xoolee peut-être bu ñu yeggee foofu. Mhm. waaw maintenant pertinence mooy mooy denc ko mooy 70 degré. waaw waaw yegg mais mais donc pour la culture loolu moo tax affaire bi. Mhm. gaaw gaaw bi par rapport ak yeneen ñi mu gaaw. waaw ba tax na sax beneen bi bu bu muté nii comme dañ ko copier mën nga demaat laboratoire def théoriquement. nga defaat benn principe. waaw yow attaqué mutation nga defaraat ko yow it après pour mu adapté wu. Mhm. waaw li tax problème bi am mooy. vaccin yi ñu xamoon ñàkk boobu du bii parce que Sénégal 2003. Mhm. ñun ñoo fi organiser woon fii avec la rougeole ñàkk ngas bi. Mhm. vac ñàkk ak vaccin buy jàmm xam nga dafa am vaccin yu ay tox. waaw ak yoo xam ne jàmm bi. waaw vaccin jàmm nag dafa métti. Mhm. te bii pour nga ñàkk ko il faut nga jël ci ñaari dose espacé de quatre semaines. da nga ciy jël ñaar. ñaar dañ lay jàmm ci ci ci ci benn weer. waaw nga jël ci ñaar nga jëlaat beneen. waaw te nee sax balaa mu efficacité ba deuxième dose ba di nga toog maanaam et cetera. Mhm. mais daal li li am solo mooy d'abord ñi koy am fukki at ak juróom la juróom-benn jëm kaw. fukki at ci yi ma xam waaw yi ma sama naataango yi nekk fële yónnee. Mhm. vaccin Pfizer boobu. ak mhm. Moderna bi la ñuy wax. am na bi ñu njëkk en tout cas OMS li mu wax. mbootaay xeet yi ña fay ña fa ma doon liggéey sama collègue yooyu. Mhm. bu ñu njëkk a enregistré vaccin bu jógee Union soviétique la. Mhm. dama ma jaa tur bi Sputnik bi xaw Sputnik excellent moom lañ njëkk a enregistré. Sputnik waaw boobu moom sax di nga ko denc à deux huit degré. Mhm. après vaccin Pfizer bi ñëw bu Moderna ñëw. soixante-dix degré voilà. Moderna ak. après bu angle angle Angleterre am na sax chinois yi sax développé nañ. les militaires mais yi gën a yi gën a nekk fii Afrique moom gisaguma vaccin. bu saboté waay. ah non je demande. waaw non non non. c'est ah parce que du xam manit manit manit waxin la ak tontu bi mu laan la <laughs> mm-hmm. mais boo xoolee li ñu def nii Afrique pour développer vaccin c'est vrai que. y a tous les spécialistes. qui sont oui y a les immunos. Mm-hmm. y a les y a les y a réglementaires. y a euh, peut-être y a la technologie. technologie technologie cest jumtukaay yu xarale. waa xam nga pour ARN mais mais déjà nous on fait localement le vaccin contre la fièvre jaune. de la recherche. Hmm? vaccin contre la fièvre jaune ñu ngi koy def depuis longtemps. waaw financement mais bi vaccin bu bees la ARN vaccin ARN c'est c'est un type de vaccin qui est qui est nouveau. Hmm. mais ñun fii effectivement bu ngeen demee xool Institut Pasteur sax dañu defoon ay projection pour yokk capacité bi d'ailleurs hmm. c'est un projet de délocalisation xaw ma fu ñu toll. ok parce que man après dama dama dama génn mais pour revenir au problématique bi mooy vaccin la buy musul a utiliser dans des campagne de masse. donc mu ñëw tey moo tax nit ñi nag di sikki sàkk. Mhm. mais bu ñu gisee jàngoro joo xam ne ñu ngi koy am na ñaari moyens préventif bii gars yi ñu ngi utiliser des méthodes méthode bi demul. Mhm. am ñi nga xam ne ñu ngi décédé. Mhm. et donc les spécialistes doivent se regrouper pour xool ne nag léegi bu ñu amee vaccin boo xam ne mun na aar nit ñi mais ñu daal di. dernière question avant gars di mos. waaw. boo doon xelal jamono ji Sénégal ci vaccin yi nga dégg yëpp ni ma la wax yaa euh, anglais bi Moderna bi dégg nañ ko fi bu Pfizer euh, ak teg bi dégg nañ ko fi Sputnik boo leen doon xelal ban la ñuy jël ban la ñu war a jël. waa xam nga fi ñu toll laaj ma question bu mel noonu ne ma ban la ñuy jël c'est c'est à titre individuel da xool am na yu bari yooyu xool. parce que mhm. vaccin boo koy jël. dangay xool fa nga koy denc comme ñun defaruñ ko dañ ko nar a jéegaani mhm. su ñëwee il faut ñu xool ndax am nañ capacité de stockage parce que man bi ma nekkee programme énergie vaccin yu ñu daan stocké ay deux huit degré on avait des chambres froides maanaam frigo yoo xam ne dañ ko doon tuddee deux huit degré comme frigi réfrigérateur am yoo xam ne yii c' est moins quinze moins vingt cinq chambre froide négative. léegi mooy soixante dix la moom. waaw waaw vaccin bële mooy. voilà moins soixante moins quatre-vingts degré maanaam. da ngay indi genre congélateur. yoo xam ni amu fi. amu fi voilà ah, donc donc du mën nekk gars ñi de yéeg moto yi def ko ci glacière. non non non moom du mën a nekk. mooy soixante degré. non am na am na sax mun nañ ko am na boo xam ne boo ko ubbee xam nga mhm. bii tam c'est un vaccin lyophilisé. waaw. parce que dafa am benn genre pënd waaw ak benn liquide booy jël nga. dolli ci ko waaw. te te va fa xeetu ñàkk yooyu boo ko amee boo demee ba juróom-benni waxtu da nga ko war a sànni. waaw dootul dootul baax. boole ci vaccin bi tam lumière solaire yi bu ci traversé xaj na mun na modifier pH bi. moo tax lumière bi. dañ moo tax yenn garab yi dañ naan ñu moytu naaj di ko. di ko voilà parce que day agir ci day agir ci moo tax. c'est compliqué c'est compliqué parce que xam nga loo xam ne nii. dañ koy garder ci moins soixante-dix degré. Mhm. ñu ne la du laal. du laal naaj naaj ci réew mu bari naaj fii mm-hmm. est-ce que ci sa gis-gis ñun am nañ logistique mm-hmm. boo xam ne ñu permettre mm-hmm. ñu denc loolu ba nga xam ni du soppeeku ñu koy dugal ci yaramu nit ñi waaw merci beaucoup xam nga PEV nag dañu am jaar-jaar man def naa fa cinquante ans cinq ans yi ma fa def macha allah am na programme bu ñu doon développé pour ñu yokk capacité de stockage yi boobu ñu ngi woon pharmacie nationale d'approvisionnement ñaari maanaam frigo yi ñu amoon yu mag yi benn bi 30 mètres cube la woon bi ci des 50 mètres cube maanaam xaw ma nuñ koy waxee ci frigo yi yi denc ñàkk yi benn bi moom mu ngi doon am capacité 30 mètres cube moo xam ne moom comme frigidaire la 2 8 degré bi ci des 50 mètres mooy bi nga xam ne day congelé mais léegi avec Gavi def nañu faan man demuma fa mais faan léegi programme bi fa la ñu yóbbu lépp luy ñàkk yi piqûre yi ak vaccin yi dégg naa foofu man la gisuma ko mhm. donc mais je ne pense pas que am nañu chaîne logistique boo xamante ne pour euh, vaccin bi la hmm. waaye vaccin bi bu fekkee dulier woo ko mun nga koo denc boo ko xam nga ñaari parti la hmm. bi nga xam ne moom solution euh, chlorure de de de sodium la boobu mën nga leen denc fii sax mën nga ko fi teg mais li nga xam ne mooy lyophilisat bi hmm. boobu def pëndëx bi waa boobu moom mun nga ko denc cinq jours à deux huit degré mën nga ko denc moom ça peut être cinq jours maximum deux huit degré. booy wax deux huit degré mooy deux virgule huit. wala ñaari degré ba juróom-ñetti degré. ok ok xam nga ñaari degré yow entre deux et huit degré. peut être ñu nekk nii sax ci fi mu ne nii seddaay bi boo xooloon boo jëloon thermomètre. en tout cas ñu ngi ci ay 4 fi ñu nekk nii mais samatul 4. bon euh, je ne pense pas 5 degrés. non plutôt 16 16 wala 16 wala avec ça bon. en tout ah, dama daan dugg ci. waaw 17 16 17 ah oui voire 18. ci waaw voilà kañ 17 waa ngi. voilà en fait mën nga ko denc fi à 2 li ñu wax ci documentaire 5 jours maximum à 2 8 ñaar ba ñett juróom-ñett. degré maintenant jusqu'à 2 heures jusqu'à une température allant ba 25 degré mun nga ko mooy ñuy def stratégie. xam nga nag xamaguñu parce que ñàkk bi stratégie dafa am. Mhm. boo xam ne sur place ngay toog. am na beneen stratégie da ngay jóg yore. chaîne de froid rapide mooy bi mu lay wax borom glacière yi. voilà ak yéeg ci moto yi. voilà léegi mais bii yaakaar naa bu ñu koy def day nekk stratégie boo xam ne fixe lay nekk. fixe waay parce que chaîne de froid bii moom. bi mu laaj waaw bi mu laaj moom moom. kenn mënu ko déplacer waaw moom kenn mënu ko déplacer. loolu dina métti di mooy ñëpp waa population Sénégal dañuy ñëw Dakar non non non dañuy dajaloo rek. dañ koy yàgg nañu def euh, nag PV am na maanaam. Euh, comment on appelle ça expérience expérience ci ñàkk moom mhm. wax dëgg yàlla am nañu expérience ci ñàkk mais nañu xam daal problématique bi laxasu ci affaire bi mooy li nga wax comment faire mhm. pour conserver ce vaccin mhm. ak ban chaîne de froid xëy na nag dégg naa ministre bi wax te boobu option boobu lañ jël Sénégal waaw ministre bi moom nee na euh, man xam nga dew ma seen ah. réunion yi nag mais am na aussi vaccin tam buy ñëw ci dëkk da ngeen di am ay borom xam-xam yu dajaloo di ci réfléchir. Mhm. parce que man loolu laa jàngoon bu ñu demee extérieur vaccin yu bees bi ñuy dugal comme li nga wax. man fii j'étais le consultant du programme élargi bi ñuy dugal vaccin jigéen yooyu H human papilloma virus boobu. man maa nekkoon consultant bi jàngat ko testé ko ci ay district Mexe. Mhm. ak district Philippe Senghor avant ñu koy dugal. ba dugal nañ ko donc programme bi am na taxawaay boo xam ne ak dëgër laay yaa gën a dugal ay vaccin yu mhm. bees. direction de la pharmacie mu ngi fi aussi. ñoom ñooy xool qualité vaccin yi nga xam ne mhm. ñu ngi dugg fi kon daal war nañ mën wóolu waa kër docteur fii ci senegal bés bu buñ ne ñaqu bi taxaw na nit ñi war nañ ko ñeme xam-xam baa ngi fi ay ca bismillah docteur Bousso Abdoulaye Bousso mi ngi ci ligne bi euh, bismillah ci waxtaan bi docteur Bousso ñu ngi lay nuyu allo docteur Bousso maa ay ca bismillah euh, loo bëggoon euh, indi comme leeral ci waxtaan wi Euh, am na Pierre dafa leerul de waaw docteur baal ñu tuuti rek comme ça déggante bi ñun ñu mën a dégg bu baax bismillah. Euh, yaa waaw tane na bismillah ñu teewlu. Euh, su ma dindee suma bi peut ah, ah, ah, waaw bu dindee. waaw bi dina gën a baax. docteur casque bi dañ na. waaw tane na bismillah. waaw en fait c'est juste pour euh, je pense que am na débat bu ngeen euh, bu ngeen commencer sur euh, la question wu kii bi ci couvre-feu bi j'entends même des fois suñu ay collègues naan la nuit wala le jour. je pense que aussi bien je pense que Yérim am na ay éléments de réponse cest aujourd'hui dañu nekk ci benn moment bu particulier mhm. suñu mois de décembre bi je disais que c'est le mois des records. ci la ñu am la semaine où nous avons eu plus de cas mhm. depuis le début de l'épidémie mhm. ci la ñu am semaine boo xam ne on a eu plus de décès ci la ñu am à part démb le jour on a eu plus de cas en une journée ñu constaté que depuis le début du mois de novembre suñu hausse des cas bi dafa c'est constant et ça augmente régulièrement dafay gën di yokk bés bu ne te bu ñu xoolee bi augmentation bi presque suñu courbe bi dafa taxaw donc dafa c'est très sérieux pour nous donc ñu commencé am des cas graves yu gën a bari euh, suñu service de réanimation yi commencé nekk sous stress mais aujourd'hui en termes de riposte ci ci crise bi bu ñu xoolee dans tout le monde euh, yi ñu am comme arme y en a pas beaucoup c'est respect des mesures barrières dans tous les pays c'est confinement déconfinement confinement déconfinement il y a pas autre chose donc notre analyse c'est on dit il faut qu'on impose le respect des mesures barrières parce que suñu analyse ci situation bi mooy mm. effectivement nit yi bàyyi nañ ca loxo moi personnellement j'ai di bàyyi loxo bi j'ai di peut-être relâchement bi ci aspect yëpp la en tout cas du responsabilité uniquement des populations parce que il y a eu des décisions qui ont été prises yoo xam ne peut-être même dans l'application pour la respect euh, ñu respecter les mesures barrières xaw nañ fal peut-être même ñun aussi au niveau du secteur de la santé malgré tous les efforts à un moment les gens étaient fatigués peut-être am na relâchement mm-hmm. plus les populations donc loolu yëpp boo ko boolee dafay indi à notre avis situation bi toll donc bu ñu ne ñun si on a même pour man bu ñu amoon deux heures de temps ou trois heures de temps yoo ne on est sûr que y a pas de rassemblement mais nous nous prenons parce que quel que soit alpha ça nous permet d'éviter une parce que les décisions ñu en tout cas yu ñu a conseiller ou ñun lu ñu wax aussi il faut aussi ñu ciy mën parce que si on appliquait la fermeture au niveau de la journée ñu ne dañuy kenn du circuler dans la dans la journée je pense que le débat allait être beaucoup plus explosif mais nous on pense que aujourd'hui moi personnellement je pense que un de vingt une heures à cinq heures du matin apporte quelque chose à la riposte ça apporte du 21 heures pile la kay nit yi di commencé nit yi à partir de 18 heures ñëpp arrêté la ñuy def amatul réunion donc au moins même si on pense que c'est faible c'est important ça impacte sur sur sur le nombre de cas parce que dañu génn aussi sur un mois de décembre qui a été assez particulier avec beaucoup de regroupements privés manifestations il y a eu beaucoup de mariages il y a beaucoup de cérémonies du ma ci déroulé du ma ci wax Mais et c'est logique qu'aujourd'hui, si deux premières semaines de janvier bi qu'on ait une explosion des cas. Maintenant, cette explosion des cas, il faut ñu limiter ko parce que nous avons des cas yu bees qui risquent de donner des cas secondaires. Beaucoup de personnes dañuy fixé wu ci cas communautaires yi mais nañu bàyyi xel ci les cas secondaires parce que cas secondaires yooyu aussi ñooy joxe des cas de cas communautaires donc cas secondaires yi il faut ñu agir. donc pour ñun. le euh, cas secondaire nga baal ñu rek leeral ñu cas secondaire. cas secondaire mooy ñi nga xam ne mooy léegi li ñu naan contact suivi mooy ñi nga xam ne dañu dañu laalante koo xam ne dafa feebar ba ñu xam ni feebar la parce que ñooñu aussi mun nañ ko ne di joxewaat di joxewaat feebar donc pour man aujourd'hui le débat sur couvre-feu ou pas et je pense que quelqu'un l'a dit c'est pas une invention sénégalaise. d'abord ñun ñoo ko njëkk def France bi ñu koy njëkk a def fii beaucoup de France def na ko ñu ngi wax ne yeneen dëkk bi nga donc le fait juste rek un moment X de limiter la circulation des personnes permet au moins de freiner à un moment euh, circulation virus bi et loolu ñun on a besoin fu parce que notre situation c'est gérer surtout les cas graves et les cas sévères parce que mooy suñu challenge actuellement et et on est dans une situation particulière aussi parce que dañu commencer aussi une stratégie de suivi à domicile boo xam ne euh, dans la première phase c'est presque à la fin et ça nous a donné de ne le virus circule tout le pays nous avons des à domicile on fait de pour les suivre c'est vrai que tout n'est pas parfait et donc loolu aussi day jouer sur les retards de consultation parce que gis nañ tous les cas sévères les décès que nous avons eus ci centre de traitement yi nit yi dañu décédé presque après que ñu egg si biir ci biir centre de drainage il faut que des mesures ñu jël ko c'est ñun moom loolu c'est quelque chose pour nous d'obligatoire suñ ko jëlul bu ñu xaar ñu dem situation yeneen dëkk yi am parce que attanuñu ko et sur la question des lits aussi on ne peut pas c'est-à-dire on ne court pas derrière les lits c'est-à-dire quinze on n'a pas quinze mille lits bu ñu amoon des centaines de malades graves on ne pourra pas les prendre en charge parce qu'on n'a pas cette y a eu des efforts qui ont été faits je que am na ay information yoo joxe sur des lits de réanimation au moins six de réanimation yoo xam ne uniquement dédié ak Covid parce que aussi bu ñu fàtte ni réanimation dafa nekk loo xam ne dafa war a continuer parce que am na ñoo xam ne ñi nga am ay problème de euh, coma diabétique ñi nga am ay problème AVC ñooñu si réanimation yi ñu ngi connaît di am donc au moins il y a un effort qui a été fait pour augmenter cette capacité ça ne suffira jamais mais au moins nañ ko reconnaître beneen chose aussi mooy la question des lits avec oxygène parce que loolu aussi dafa am solo si cas grave yi ñuy joxe du ñëpp nekk réanimation am na ñoo xam ne dañuy nekk si san de traitement yi am na ñoo xam ne oxygène rek la ñuy soxla parce que phase boobu dafa am solo ñi nga xam ne da nga war a jox oxygène pour ne pas que ñu passer en cas au cas sévère et souvent bu ñu jéggee cas sévère boobu nag lañuy am les décès donc foofu aussi je pense des efforts ont été faits plus ont été mis en place yoo xam ne def nañ fa oxygène donc systématiquement boo xoolee centre de traitement ñu ubbi yëpp dañ ciy def oxygène et donc am na loolu je pense que vraiment c' est des choses yoo xam ne c' est objectif te bu ñu ci ñëwee visiter des centres de traitement dinañ ko gis donc voilà point boobu ma bëgg a wax maintenant sur la question du vaccin mm-hmm. moi je parle du principe principe épidémie yi vaccin rek moo ko mën a régler mm-hmm. loolu je pense que ñu ñëpp d' accord nañ ci on ne peut mettre fin à cette épidémie su ñu amul vaccin. Euh, immunité collective nag. non la question de l'immunité collective ñun wax nañ ci c'est-à-dire du du stratégie. Hmm. aujourd'hui ñu ngi def benn étude pour xool ce qu'on appelle la séroprévalence c'est-à-dire xool combien de Sénégalais estimés ont été en contact avec le virus. Hmm. peut-être les du moins ci anticipé on tourne autour de vingt pour cent mais xam naa ne des résultats beaucoup plus précis dinañ ko joxe. Hmm. du stratégie. je pense que dëkk yi ko jéemoon xalaat dëkk bu mel ni Angleterre je pense que ñu ngi naan tëj nañ seen dëkk donc loolu du stratégie pour nous. parce que dafa am un prix à payer le prix à payer du ay bakkan. Mhm. nous sommes obligés d'utiliser suñu ay stratégie limiter la transmission. ok sensibiliser les populations ba nga xam ne dinañ mën respecter les mesures barrières donc loolu c'est important. donc pour revenir ci vaccin bi. donc mhm. dama ne vaccin bi pour man amul débat si on l'utilise on l'utilise pas dañu war am vaccin. su les types de vaccins ak stratégie bu bees bi nga xam ne technologie bu bees bi nga xam ne moom la ñu utiliser vaccin bi avec les euh, l'utilisation de l'ARN messager bi ñuy wax je pense que no notre collègue le professeur en parlait mm -hmm. c'est une technologie nouvelle je pense que dëkk bu mel ni États-Unis dañ xarañ nañu FDA yi mooy valider vaccin yi xarañ nañu je pense que ñun aussi nañu am moi je dis toujours ci feebar nañ ci war a am humilité mm-hmm. ces gens là ils sont pas suicidaires dañu parce que tout simplement xam nañ ni ak évolution bi su ñu amul un vaccin dinañ am problème donc pour le Sénégal il faudra qu'on aille vers ça et je pense qu'aujourd'hui le président de la République le ministre de la santé joxe nañu instruction ba nga xam ne euh, am nañu capacité mën a analyser pour dire vaccin bi nga xam ne moo gën mm-hmm. sur la question de la conservation loolu aussi souvent dañ koy wax dañ naan moins quatre-vingts degrés le virus n'est pas vacciné congelé moins quatre degrés yi noonu la ñuy transporter virus mais bu ñu koy administrer nous n'avons plus besoin de moins quatre-vingts degrés une conservation entre deux et huit degrés day suffire mm-hmm. et loolu mën nga ko garder pendant au moins en moyenne une semaine mm-hmm. maintenant bu fekkee le flacon da nga ko tijji reconstitue ko comme disait tout à l'heure professeur la possibilité ce de vaccin de l'utiliser pour ce type de congélateur de moins quatre-vingts actuellement au Sénégal service élevage pense que l'ENERV su ma jumul am nañ ko parce que y a des virus animaux yoo xam ne ñoom ñu ngi koy stocké à des températures yooyu donc mun na bañ nekk obstacle et je pense aussi ñun duñu le choix doit se faire juste sur le virus qui a la meilleure qualité bi am meilleure tolérance bi am meilleure efficacité mm-hmm. et aussi conseil bu ñu joxee mooy dañu war a anticiper c'est-à-dire comme xamaguñu ban vaccin la jëlagum pour le moment on va donner les moyens sur le plan logistique pour am ko Maintenant, sur la logistique, pour def que sur tout le pays, logistique baa on a un programme élargi de vaccination qui a bien fonctionné et continue de fonctionner. docteur wax professeur wax na ko d'ailleurs. Mhm. donc il faudra que ñu xool attention sur les discours sur le vaccin parce que aujourd'hui beneen problème la ñu am et je l'ai dit c'est notre programme élargi de vaccination aujourd'hui les gens n'osent même plus faire de vaccination sur le PV qui nous a donné d'excellents mhm. sur la rougeole sur la polio sur beaucoup parce que foo dem bëgg fa vacciner sax xam naa dañ la filmer ne ñu ngi vacciner donc aussi ñun war nañ def effort de communication et là je suis d'accord quand tout à l'heure Yérim disait communication bi il faut peut-être ñu xoolaat ko soit on parle plus fort soit on change notre manière mais je suis d'accord qu'aujourd'hui communication peut-être y a des choses yoo xam ne y a des efforts à faire dessus d'accord euh, bu dul laaj vraiment je pense que ça a été complet docteur Ablaye Bousso kon ñu ngi lay gërëm di la sant ça a été vraiment euh, exhaustif jërëjëf euh, donc euh, professeur je pense que complément yi docteur Abdoulaye Bousso indi euh, dafa complété rek li nga doon wax bu vous rejoignez ñuy ñuy ñuy rax rafetlu xam-xam bi alors euh, balaa ñuy dem publicité parce que jot na deuxième partie bi xam naa dañ koy dañ koy ndëxëñ rek Euh, très voilà dañ koy dañ koy fast track comme dit Papis juste nga baal ma der par rapport ak li docteur doon wax c'est c'est le technicien qui a parlé ah uh te avec beaucoup d'honnêteté de franchise euh, oui. pas de politiquement correct mais mm-hmm. il a dit les choses telles qu'elles sont oui wax na ay appréhension mm-hmm. wax na aussi ay crainte yoo xamante ni am nañ ko mm-hmm. je pense que ne ñoom rek du ñu doy ci xeex bi donc il faut de part et d'autre que lépp loo xamante ni mën na gàllankoor pour ñu mën a pour ñu bañ a atteindre seen objectif que tout le monde joue le jeu. Mm. je pense que ne loolu c'est important et euh, c'est aussi le le lieu de le félicité moom mi si sa disponibilité parce que man moi-même j'ai été confronté à des situations parce que. position bi ngay am moom moo tax nit ñi mën nañu ñëw ci yow naturellement mm. mais musuma ko woote décroché wul téléphone am wala systématiquement après il me rappelle donc c'est il a été vraiment euh, là durant tout le combat et que liñ koy liñ leen di ñaaxee rek mooy c'est pas au détour d'une émission pour communiquer je pense que ñoom aussi ils ont besoin que ñu delloo buum bi ca mbooy mbooy ba par rapport au départ ñu jëlaat seen temps d'antenne yi expliqué waat nit ñi ba pare ñu bañ a nekk rek ba problème am ñu nekkaat ci réaction mais que ñu nekk beaucoup plus euh, euh, ci benn approche bu bu bu kii tu as parfaitement raison mais hmm. communication bii nii. Hmm. mais professionnel communication ñoo ko war a porter. voilà ñii ils font le travail c'est les techniciens. loolu la ñuy réfléchir. Hmm. génne solution yi proposer ko. mais les communicateurs euh, professionnels communicants yi ñoom a porter le message à l'endroit du public mais dans ils sont. macha allah. Hmm. les nos médecins nos trucs macha allah. et je pense que bu y a rien à dire ils sont formidables. et puis mënuñu nekk ci plateau yi aussi di tout le temps di wax di faire appel aux gens pour ñu communiquer je pense que boo waxul dara nit ñi sax mën nañu am jiixi jaax ka am nga loo leen di nëbb. Mhm. donc xam nga responsabilité wax ak nit ñi. Mhm. ñaax leen dafa nekk loo xam ne lu primordial et ça fait quand même des semaines qu'on fait des appels et je pense que il faut quand même affaire bi aussi dynamisme bi ñu amoon au début ñu ñu retrouver ko quoi. Aïcha Pierre tu peux à la publicité deuxième partie. waaw Paul. waaw Paul <laughs> namm naa la de. maa ngi fi. fanoon. Kaolack. waaw xam naa ci Karambar. ci Karambar doo ma permis de conduire ak assurance bi carte ak visite ak visite technique ak extrait de naissance bi. sama na nag di jëm nga mag de. Ah. ñaari assurance nga ma jox. bii mooy assurance oto bi.